mbokk yeeg xarit yi seetaan télévision bu Sénégal content de, kontaan di ànd ak yéen fii ci palais de la République euh, gis ngeen ko léegi son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dugg si na ci salle bi nuyonte ak euh, ay journalistes yi nga xamanté bi ñom la wara sékkal tay waxtaan waxtaan wi nak muy bu jëkk bi mu fi jëlee nguur gi ak légui euh, ci fukki fan ci wéru juillet bi passé la am ñetti wér ci bop nguur gi mu am nak ay thématique maanaam ay poñ yu am solo yoo xamante bi nit ñi ñu ngi ciy wax moom it mu war cee indi ay leeral looloo tax tey mu jagleel journaliste yi waxtaan wi mu doon loo xamante bi nag àdduna wërngal këpp bëggoon nañu ko mais nag li ko gënaloon mooy doore ko fii ci réew mi ak doomi réew mi moo tax tey ñu nekk ci jataay bi ak journaliste bu mel ni Souleymane Niang représenté fii groupe Futur Média euh, Souleymane ñu lay dalal

wala Aram Touré euh, toog sa wet moom it mu représenté fii groupe euh, sans limite nekk euh, benn site internet ndeeram ñu lay dalal. maa ngi lay fay Fat Sakho di kontaan bu baax a baax bokk ak plateau ak suñu kilifa di le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye président kontaan nañu teew fii di la ñaanal yan bi woyof ci yow. ci wàllu càmmoñ bi Migui Maram Ndiaye moo fi teewal rajo Sénégal Migui ñu lay dalal. jërëjëf Fatou maa ngi lay nuyu du également le président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak sénégalais yi nga xam ni ñi ngi si biir réew de ak si de réew di ñu may noppi di yaakaar ni waxtaan bi la dina am Nous xam ne rek dinañ euh, nga ak Pierre Edouard Faye bu groupe Walfadjri Edouard ñu lay dalal. maa lay fay Fat Sakho di la nuyu di nuyu ñëpp ñuy suivre jamono ji sunu plateau bi di nuyu monsieur le président de la république ak samay naataango yi nga xam ni ñoom laa plateau bi. sa nga toog ak la princesse de la RP Mariam Ndiaye bu groupe Sud Communication Mariam bonsoir.

Euh, mu qui, ci li nga gouvernance économique et financière manam nan la ñu yoree kopparu ak nan lañ koy doxale ci urgence sociale yi nga xamante bi euh, tax na euh, fan yee rek ñu gi jël aussi ay mesures yo xamante bi xëj na buñ ci demee dund ci dina yomb yan urgence la journaliste yi dinañ ci ñëw ak mom, ñëw tamit ci situation politique bi parce que nak mënut euh, li fi xew yëpp moo ak benen poñ bi nga xamante bi euh, diplomatie ak intégration africaine ndax naan dañ naan euh, bay sa wewu comme nim koy defee depuis mu jëlee nguur gi fay wër rew yi nga xamante bi ñoom ñoo wër dem na fi France ñëwaat mais li mu jiital mooy ñi nga xamné ñom lañu la dendal muy Mali Burkina ak yooyu ak yand yan relation la fas doxal ak ñom yoy yëpp journaliste yi fi tew tay ñom ñoo fas sék mom

ñu teewal leen fi pour ñu seq waxtaan ji tey kon euh, sant yàlla bu baax a baax gannaaw bu ñu yàlla mayee ñu mën koo waajal mën koo fekkee tal ko ba di ko def ci waxtu gi Sénégal yi yëpp di ñu teewlu fii ci Sénégal ak ci jaspora bi. bi nga nguur gi ak léegi toll ci ñetti weer euh, fukki fan ci weeru sulet bii la woon euh, nguur gi nan nga ko dundee bi nga fi duggeeg léegi si koo xamante bi nee nañ mooy président africain bi gën a ndaw euh, bi gën a euh, néew ay at bokk euh, ci nu ma ko mën a waxee Sénégal ba mu amee indépendance ba tey tamit yow yaay ñeenteeli président bi yaa ci gën a tuut ay at est-ce que yaakaaroon nga ko ak bu nga duggee ci pale bi ba tey loo yëg sa yaram ñetti weer yi tam noo ko dundee. waaw balaa may gën a sori damay delluwaat rek di sant yàlla bu baax a baax. te di ndokkeel sénégalais yi ndokkeel umma bi yépp ci at ku bees gi nga xamante ne dugg nañ ci di ñaan yàlla mu def ko atub xéewal atum naataange ak atum jàmm ju bari ci àdduna bi waaye rawatina fii ci Sénégal delluwaat tamit sant bu baax ci nawet gi nga xamante ne dugg nañ ci ak jàmm di ko ñaan mu sotti fi ndox bu barke defal ñu tamit nawet gu am naataange te Sénégalais yépp mën ko fekkee ci buñ koy góob mu bari lool te doon loo xamante ne jëriñ na askan wi di delluwaat jaajëfal presse sénégalaise waaye ci presse sénégalaise tey ndokkal sud ak seen naataango gi leen teewal fii tey ndax ren lañu am 30 ans muy trente ans ci ouverture démocratique presse sénégalaise joué ci rôle bu am solo kon mel na ni tey rek su ma ndokkalee sud ndokkeel naa journaliste yëpp à travers sud ndax sans ñoom xëy na démocratie sénégalaise bi nga xamante ne ñu ngi ñu ciy bàkk di ñu ci kañ te naw ñu ci bu baax a baax kon du am ndax presse mënta am démocratie mënta am sans une presse forte te pionniers yi mel ni sud ñoo wone yoon wi ànd ci jafe-jafe waaye ñeme ko ba xàll yoon wi ba tey contribution boobu ñu continuer nekk sentinelle yi waaye continuer nekk tamit promoteur yi kon gàcce ngalaama sud waaye gàcc ngalaama ñëpp ñi nga xamante ne ay journaliste lañ liggéey liggéey boobu de génération en génération ba fi ñu toll nii. bu loolu weesoo nag certes nguur de wax dëgg yàlla sant naa yàlla bu baax a baax naka laa ko dundee avec bokk de sérénité. ndax même bu fekkoon na sax ñun suñu parti politique nuñ ko waajale woon dañ ñoo mayoon afiya ba ñu defee ko noonu maanaam jiital ku ñu bëggoon a jiital mu nekk président de la république ñun ñu àndoon ak moom day mel ni yen wiñ ko yen ku na ci ñun lañ ko yen kon noonu lañ ko xalaatee woon noonu lañ ko waajale woon suñu bopp ci pression bu mu naroon àndal tout le temps dañoo mës di wax ni du rek jël pouvoir bi sax ci la contrainte bi nekk waaye boo ko jëlee ba pare urgence yi fi nekk ak ni lay sénégalais di yàkkamtee nga taxaw ci li nga xamante te ne moo tax ñu fal la kon ni mu diisee ci man noonu la diisee ci képp koo xamante ne bokk na ci ñu porté woon projet bii pour ñu jël li nga xamante ne mooy confiance bu ñu sénégalais gi dénk kon pression boobu yàgg nañ ko dund donte nekkuñu woon candidat parce que dañu nekk ci groupe solidaire nekk ci parti politique jaar ci ay xat-xat yu bari waaye nag da xam ne

évidemment dina ànd ak pression mais c'est une pression positive pour un patriote mhm. ou des patriotes yoo xam ne benn yéen rek lañu am mooy fexe ba coono yi askan wi nekkee ñu ànd ci saafara bu mu gën a woyof ci ñoom kon li ñu doon sakku du toog cab chaise ñu dalay woowee ndiw président de la république wala nga am ndombal tànk non li ñu doon sàkku ay leng yoo xamante ne bu ñu leen teyee ñu mën a defar li nga xamante ne jàppoon nañu ne mu ngi yàqu te bi ñu toogee tamit gis nañ fu ñu natoon yàqu-yàqu gi rek romb na ko kon opportunité boobu ñu am pour servir dañ koy sante yàlla ba pare def ko honneur bu mag bi ñu peuple sénégalais bi jox ñu war ko ko delloo ci liggéeyal ko guddeeg bëccëg suba ak ngoon ba bu ñu fay dem mu ñuy jëf ay jéego yu bëri ci ni ñuy saafara jafe-jafe yi ba keneen bu ñëwee tamit am fu mu tàmbalee dem ndax certainement ni ñu remplacer nit noonu la ñuy remplacer te bëgg nañ tamit fu ñuy jaar ci ay multi multi jafe-jafe ba toog ki ñëw tamit buy toog mu sedd. parce que askan wi wane na ñaar wane na que mën na taxaw démocratie défendre valeur démocratique ak liberté. waaye wane na tamit bu fekkee ne homme politique yi nekk nañu à la hauteur. askan bi mën na nekk à la hauteur te yàgg na nekk à la hauteur maanaam dem voté ji ci jàmm delloowaat seen kër yi bët set ñu dem liggéey. kon on grand peuple. may am mbégte gu rëy di ko ndamoo nag di sant yàlla gannaaw bi mu defee bi ma nekkee président de la république ma askan bu mel ne askanu Sénégal askan bu bëgg jàmm waaye askan boo xamante ne tamit jaloore gi nekk def nañ ko fi te fas yéene taxawu tànk yooyu pour de génération génération ñu gën di am taxawaay gu leen di respecté te yaakaar na ne tey fu Sénégalais dem am na mbégte googu ak fierté boobu ci nit ñuy bakkee ci biir Afrique ak ci biir ci fi génn Afrique ñu ciy sant bu baax baax monsieur le président jërëjëf euh, Ndeye Mariam nag am question bu ko soxloon jëm ci état des lieux ak réew mi fi nga ko fekk ak na ko fekkee. Mhm. jërëjëf Fatou son excellence may feddaliwaat sama nuyoo ci sama tour ak turu groupe Sud Communication bi nga xam ne ñoo ma yebal tey jii dañ fi dajaloo ngir waxtaanee wala boog ñu def xayma xayma sax teel na si koo xam ne nañ la ci diirub juróomi at wante baax na ñu taxaw seetlu xool ba xam bi nga fi nekkee ba léegi. fan nga jëlee réew mi ak fan nga ko fas yéene yóbbu laajte bi li ko wundu li ñuy tuddee état des lieux maanaam bi ngay soogu di yegsi naka la keesu état bi meloon ndax permettre na leen lépp loo xam ne dafa nekkoon ci li ngeen mëbatoon ci réew mi ngeen mun kaa dérouler wala boog dafa jafewoon jafe na ndaxte gis nañu ne ci diiru ñaari weer def ngeen lu ñuy tuddee levée de fond ba am ay eurobond muy koppar bu ñëw dollee si kuwaat ci dette bi nga xamné ne bi nga xamné réewum Sénégal daf ko amale nax loolu lu mu wundu moom mooy ne fekku leen fi dara wala bok état des lieux. waaw d'abord euh dama bëgg préciser rek manam léral né li ñi def ni tay du pour def bilan ndax bu fekkee na mandat 5 ans la té at wu nek numu mu tuuti 365 jours la kon xana mën nañ japp ne man liñ ma appal. mille huit cent vingt cinq jours la mille huit cent vingt cinq jours nag doo ci def cent jours nga ne maa ngi def bilan loolu c'est mais exercice la boo xam ne dafa am lu ko wundu te jaar na tamit leeral balaa may ñëw ci laaj bi nga laaj bi may dem France yàggul dafa am ay journalistes yu nekk bitim de yu bëri yu demande defoon ay demande d'interview ma ne du ma dem sama première sortie ma di ko jox presse étrangère kon balaa may wax ak waa bitim réew bu dee askan wi laay waxal ma jaarale ko ci presse Sénégal ba pare mu wóor ma ne tamit feeg ak diir dinaa delluwaat te mën na am ñu defaat même sollicitation yi te mënoo dëkk dina déedéet déedéet ma ne kon jot na gannaaw bi ma fi tooree trois mois parce que man ñetti weer sax laa jàpp na laa def man nekkuma ci bilan cent jours deux cent jours trois cent jours maa ngi ci def naa ñetti weer diggante bi jot nañoo xool am lu ñu gis am lu ñu nekk di saytuwaat am na jot app bi jot na pour ñu mën a toog ak presse sénégalais à travers ñoom ñu wax sénégalais yi effectivement fii lañ jëlee réew mi jéego yi jot nañ ko def waaye loo gis rek lii moo ko waral pour sénégalais yi gën mën a comprendre suñu démarche gën ñoo mën a gunge. bi ma ñëwee biñ ma falee déjà ma am avant may prêter serment laa commencé xool. fan laay jëlee réew mi première chose bi ma def boobu maa ngi hôtel Azalay dafa am ñi ma ñoo xamante ne ay sénégalais lañ ma yàgg di leen suivre woolu leen ci seen xalaat laaj leen naka la ñu gisee situation bi ñu wax ma seen xalaat ma commencé saytu ba xam ndax réew mi may jël lii ay stock de sécurité ci wàllu lekk lii approvisionnement ci wàllu carburant pour courant ak leneen ak leneen loo xamante ne mën na jàmp fan lañ ci toll bi ma commencé def exercice boobu am na li ma gis lu ma jaaxaloon loo xamante ne buñ ci bàyyiwul woon xel xëy na mënoon nañ avancer tuuti rek ñu ne coupure commencé na parce que SAR amatul approvisionnement parce que fekk nañ fi loo xam ne ci wàllu wax dëgg yàlla doyoon na waar waaye xel na xel boobu ñu am ci njëlbeen xool ci secteur sensible yi fan lañ ci toll wax woo direct DG SAR bi mu ñëw ñu waxtaan ak moom mu am lu ñu wax woo DG Sénélec woo directeur du commerce intérieur woo ñeneen ak ñeneen ci biir administration bi ancien ministre du budget woo ñeneen togg ak waa FMI woo ñëpp ci lañ xam ne situation bi ñu fekk nii xaw na doy waar trop trop trop trop pour dire le moins waaye tax na tamit ñu gaawantu jël suñu matuwaay ba bateau bi nga xamantene defoon na fi weer mënul décharger parce que fayuñu ñuko won ci SAR ñu defi pexé ba bateau bobu ñu fay ko ba benen ñew ci gannaaw ñu fay ko pour ñu mëna a assurer approvisionnement au SAR ak hydrocarbure mu wor ñu tamit duñ tok weer rek courant coupé ñu fekk tamit ay yenen bir yu doon nit ñi doon gawantu di def parce que xamnañ ñu ngi dem ma jël ci misal rek xeyna dinañ ci egg ndox nit mën na bàyyi lu ne ba mu des ndox ñu ñëw le vingt neuf mars ma fekk sama prédécesseur ki ma fi bàyyi ki ma fi wuutu ñu mu àndal signé arrêté pour yokk ndox mi le vingt neuf mars kon dama doon toog rek factures yi factures yi naaw ñu ne ñii la fekk ne ñoom ñoo ko signé ma gisaat ay contrat yoo xam ne surtout ci biir liggéeyu hôpitaux yi dafa am contrat yu ñuy doon baral boobu dafa guma sax prestation de serment ci laa woo le ministre de la santé de l'époque nee ko contrat tel tel tel buñ ko signé contrat boobu ñu taxawee ko te li ma ci gisoon ci ay surfacturation bu ñu leen waxee ngeen ja yaakaar ne sax loolu mënta nekk biir Sénégal ba tey dañoo bloqué lépp luy contrat ci wàllum santé yi nga xamante ne commencé wuñu woon di ko exécuter parce que le que la surfacturation, c'est inacceptable. Si je suis qui m'a fait Woutou, nous avons des visites. Nous avons fait des jeudi Bobo. Je suis allé à une convention. Je suis convention avec Dakar. Nous avons signé 25 ans avant. Mais la convention arrive à expiration. Nous avons fait 20 ans plus tard. Pour les 20 prochaines années ma gis que nuñ ko l'intérêt le Sénégal ça n'a pas été préservé On a leen bàyyi leen ko kase leen un nouvel appel d'offres pour nous dire que les intérêts du Sénégal sont pris en compte Et si nous ko defee ba pare N'gén gëm-gëmale ko convention bu arrêtée. arrêté ak bu am di ngeen xam ne intérêt Sénégal préservé nañu ko par rapport déjà réalité finance publique Sénégal nous avons des am doute ak certitude que am na lu ñu waroon càmbar ci biir dès 2018 suñu parti dafa bindoon ministre des finance bind FMI bind banque mondiale nee leen ni ñuy gisee ñu saytoo finance publique Sénégal suñu xel dalu ci te bu ñu ñëwee ba toog effectivement fekk nañ situation boo xam ne xëy na mënoon nañ ko gën a saytu mu gën a sell gën a set ci réew mi donc évidemment mënoon na am jafe-jafe ci lu gaaw surtout que pendant ñu doon def loolu am ay jafe-jafe ñu ngi doon signé ay ay yeneen ay yeneen décret pour que ancien ministre ñu kon ñu am li ñu leen di fay signé ay yeneen décret pour ce qui de des d' autres travailleurs di jël engagement yoo xam ne état mosu koo nangoo jël mu jékki-jékki yéwén ci mu doon loo xam ne dañ ko ñëw ñëw rek fekk ko suñu mu këpp suñu kaw te te du ñoon ñoo ko jël surtout que ñun ñooy ñoo nar a doxal am responsabilité cinq prochaines années loolu ànd ak boo xam ne nag boo seetloo déjà sur le plan conjoncture internationale Nous, ngi subir les effets de la crise Covid-19 ba di subir effet de guerre Ukraine Nous avons une guerre au Moyen-Orient Nous xamante ne xamuñu fan lañuy fan lay mujj kon évidemment conjoncture internationale c'est une conjoncture très difficile dëkk bi tamit nekkul na de lépp daf fi amoon jàmm rek ñëpp di liggéey ni ñu war a liggéey ku ne de 2021 ba 2024 bi bi bi mooy Sénégal di jox mais coow ak jafe-jafe amoon na Sénégal à telle enseigne que liggéey gi xawoon na lompoñ kon li nga xamante ne ci liggéey googu lay jële jóge nguur gi di ci am koom di ci mën a jële xaalis di ci liggéey évidemment liggéey boobu xawoon na sooxe kon sur tous les plans les indicateurs étaient presque au rouge wala boog à l'orange loolu la ñu jëlee réew mi mais alhamdulilah taxawaayu askanu Sénégal ak même leader politique yi nga xamantene dès 22 minuit presque que ce peuple là mérite d'être soutenu kon am nañu crédibilité malgré conjoncture bu malgré malgré situation yu nous continuer nañu confiance ba Sénégal nous def Nous ñu am tamit ay ministres yo xam notamment ci finance ak coopération ak ñi nga xamante ne jël nañu leen ci domaine boo xam ne mën nañoo wone yoon wi. yaa waxal sa bopp da nga fay fekk benn situation bi nga xam ni doy na waar suñ la suñ la déggee et pourtant dañoo toog euh, ñaari weer lu matul ñaari weer lépp lu nekkoon borse wala agriculture daanaka ba mu des benn bu ñu war a auditer nga daal di koy fay ñu ni deetawaay nga ni dangay wàññi dund gi le ministre des finances nee na lu toll si juróom fukk ak ñeenti milliards lañ ci dugal. Nous xaar yeneen pàcc yoo xam dañ ko wara a wàññi yu si ko courant alors sénégalais bi tay lan la bëgg xam moy naka ngeen def ba mëna supporter lu ñu mel ak ba kañ ngeen ko mëna tenir. d'abord il faut question de réallocation de ressources là et du sens des priorités vent d'espoir bi and ak suñu élection ak peuple sénégalais lu mu xaré tànk tobeum ci défendre les valeurs républicaines et les valeurs démocratiques. dafa mérité woon ñu sargal ko ci loolu dama ko waxoon benn jour que bi ñu doon def campagne électorale nit ñi di daw toujours am na échange ak jaloog buy am ci diggante ñun nekk ci kaw oto yi ak ñiy daw di wër suñu oto yi luñ ñuy wax mooy sol na nañu wàññi leen dund gi dañoo bëgg liggéey en tout cas seen doléance dañ koy dégg nga xam ne coono coono ngi ci askan wi kon boo ñëwee évidemment nit ñi waxoon nañu ne que duñu dem ni ñi waxoon nañu ne que mënuñoo wàññi dund gi même bu ñu waxee ne dinañu wàññi am na ñu toog ñu nekk ci secteur yi toog tele ne c'est impossible mais luy suñu fort mooy mosuñoo gëm impossible te bëgguñu xam sax lu impossible parce que loo xam ne c'est impossible rek doo ko jéem bañ a xam que nangam ak nangam c'est impossible moo tax ñuy def l'impossible kon ut nañ ay ressources am na lu ñu am am na loo xamante ne mu ngi fi woon ñu waroon ko alloué loo xamante ne du urgence am na loo xamante ne état do moo ko doon jël di ko di di fas yéene ko yenn ci ba renoncé ci ay recettes maanaam bàyyi ay tax ak leneen ak leneen ak waxtaan tamit ak partenaires sociaux yi. parce que ni ma waxtaan ak syndicalistes yi waxtaan ak secteur privé yi ñu toog def ay travaux ay séances de travail ak gouvernement bi premier ministre ak gouvernement ci la ñu xamee ne tamit que am na ñoo xamante ne xëy na seen marge. war nañoo mën a def effort budgétaire boo xam ne ak li état bi jot a def ak ñoom buñ ko xoolaatee am na foo xamante ne mën nañ cop comp fu ne pour pour gën a oyofal yéen wi sénégalais yi ba fan benn certitude rek laa leen mën a jox mooy suñu engagement ci noppal sénégalais yi du wàcc mukk te lu ñu am ci ñoom ci yërmande rek ñu gis ñuy def ay jéego ci wàll nañu xam ne ki li nekk ci suñu xol ci yéene weesu na foofu foofu di dem kon lu ñu wàññi na Sénégalais yi xaar na ci fii ak ay weer dinañ ko wàññiwaat parce que lenn li ci méthodologie d'approvisionnement yi la yenn yi ci ay nit ñoo xamante ne fas yéene wuñu woon taxaw ci liy noppal Sénégalais yi je prends un exemple simple ci lu ñu fas yéene def ci euh, par exemple gis nañu ne bu ñu doon wax pour ñu wàññi mburu mi nee nañu mënul mais ñu gis par exemple que bu des gens jënd farine mais am nous ñoo xamante ci même jour même même même même fournisseur ci bir même bateau bi ñu jënde ci même personne bi kii ne lii laa jënde kii ne lee laa na am dëgg la parce que wax dëgg le secteur privé ils ont joué le jeu aussi il faut ñu sargal leen ci loolu rien dañuy jàpp ne bu dee looloo ngi am rek jar na ko secteur yu bëri ci approvisionnement ñun ñu teel ko suñu bopp dem jëndi bu ñu jëndee andi ku doon importer ñu nee la demal nga fay ci banque bi nga jëwul nga ñëw lever li nga xamante ne moom nga soxla woon ci quantité bu boobaa dinañ am une maîtrise du coût d'achat dinañ am maîtrise ci dédouanement bi te dinañ am maîtrise ci stock de sécurité bi te loolu identifié les produits qui sont été xamante ne fas nañ yéen ko fas nañ ko conseil des ministres nous avons nañu sur une agence de centralisation de la commande de l'État du Sénégal liñ ci fas def dans la logique de la réduction du train de vie de l'État Nous avons rationaliser déjà les li nga xamante dañ koy les par rapport objectifs que ñu fournir mais c'est pour permettre ke lu ñu doon jënd fekk ne yow cent nga ci soxla lu lay coûter boo ko dajalee woon jënd mille évidemment ci mille bi lay gën a moins cher que boo jëndee cent mais bëri na loo xamante ne tey dañuy bàyyi direction bii mu jënd bàyyi direction bale mu jënd bàyyi direction bale mu jënd te lépp di jóge ci même budget bi kon au lieu ñu bàyyi ñëpp di jënd day def centrale d'achat pour toute l'administration publique pour ko ñiy jënd bu ñu dajee loolu mu gën a bari ñu mën a jouer sur kon instant yi identifié nañu ay niche yu bari yoo xamante ne mën nañ def ay jéego pour réduire le coût des ressources que bi état bi de engagé pour mën ko jël dugalaat ko feneen yu mel nii agriculture lu mel ni leneen ak leneen par exemple bu ñuy ñëw ñun yaakaaroon nañ ne nañ ne trois mois yu ñu fi nekk du ñu mën a waajal campagne agricole kon xëy na nit ñi ñu ngi doon xaar que nu ñu góor góorgóorlu lu ñu def daaw la ñuy mën a def mais lañ lañ def. dañoo ñëw ne naka la doon demee ñu expliquer ñu ñu ne leen duñu ñu deferee noonu dañuy wax ne état soxla na tant engrais soxla na tant semence ñu ne par exemple pour engrais bi kan moo ñu mën a jaay tant de tonne nit ñi def ay offre def ko sous plus fermé ñu kan kanamu ñëpp ñu dem jël le plus le moins cher pour le même type de produit parce que man suma soxlaa soixante-dix mille tonnes d' daaw c' était trente cinq mille ren soixante-dix mille lañ ci def donc double nañu ko ñu ne leen boo demee ci kenn rek ne ma jaay ma bu la waxee ne cent lii laa lay jaayee doo ko mën a dindi mais boo nee yéen ñëpp xool leen ku ci ne ñaata nga ma koy jaay da gis ne kii bu la ko dee jaayee ñaar fukk kii dina la ko jaayee fukk juróom kii jaayee la ko fukk nga dem tànn bu gën a oyof c'est ce qu'on a ba mu permettre ñu ñu wàññi ren engrais de vingt deux pour cent du prix te gis nga prix bobu ñu am ren déwén prix bobu dañ koy wàññiwaat kon engrais gën na moins cher ren waaye gën na bari déwén tamit dina gën a moins cher par rapport ak ren te dina gën bari inshallah rabbi. monsieur le président ci pexé yoy nga xamné eh, wax nga ni eh, yéen a koy dérouler pour faire face à la situation ak tenir seeni engagement lu mel ni wàññi prix ak yini mel bokk na ci tamit. yokk ressource internes yi ak ressources externes yi loolu mu ngi ñuy yóbbu ci mbiru fiscalité mooy lempo bi euh, euh, entreprise am na si yu bëri bokk yoo xam ne ñu ngi naan dañ leen a xoj fu mu nekk nii ba tax na sax boo moytuwul dinañ wàññi liggéeykat yi wala ñu wàññi seen production te loolu day am njeexital ci koom-koom bi laaj bi mooy euh, lan mooy sa vision yow ci fiscalité Euh, nan lañ mëna ressources yi en même temps wañi subventions yi gannaaw engagement bu état bi jël la euh, euh, wañi yi optimiser les dépenses de l'État y compris les dépenses fiscales donc loolu yëpp yow nan ngay résoudre équation bobu sans gagne économie bi notamment entreprise xam nga ku ci nek ku am formation rek am nga déformation journaliste bi am na déformation professionnelle keneen am na déformation professionnelle l'inspecteur que je suis des impôts et domaines am na déformation sama déformation mooy dama jàppane ne que dund ci communauté maanaam ci askan mënul nekk bu dee ku nekk amul looy jël di ko xañ sa bopp di ko dugal pour ñëpp bokk ko parce que dafa am loo xamante ne nit mënulu ko boppam ku génn fii ku la ëpp doole song la këf sa portable sa premier réflexe mooy dem police wala dem gendarmerie mais boo demee police lan moo tax police am parce que état dafa jël recruter ay nit former leen di leen fay équiper leen boo soxlaa justice da ngay dem ci justice parce que état dafa jël ay nit former leen équiper leen di leen fay salaire mais loolu mënuloo sa bopp mënuluma ko sam bopp su ma jógee tey ne damay dem Ndiaganiao ci tëli laay topp mënuma tabaxal sama bopp tëli di ko topp de Dakar à Ndiaganiao kon am na loo xamante ne nañu nangu ne que nguur rek moo ko mën a def mais nguur fan lay jëlee xaalis bi ku ne xam na ne dañuy xëy rek dem dagg ay suñu billet commencé jënd lu ñu soxla demewul noonu kon ku nekk da ngay xool ci loo am ñu comp ci tuuti nga dugg ko ci gafa gi ñu dem gafa googu nag saytu ko nu mu gën a rafetee pour jëriñ askan wi. man bi may nekk inspecteur des impôts et domaines mën ngeen ko dem seeti ji bu ñu commencé di def ay remise gracieuse maanaam di baal impôt ay nit 2016 lañ def suñu conférence de presse ne lii jaaduwul attaqué ministre bi ñu ne ñu dañoo génn obligation de réserve ba menacé ñu pour ñu pour dàquñu waaye dañ jàppoon ne dafa baaxoon sénégalais yi xam ne que am na ñu ñuy baal ay impôt Nous avons besoin de pression gu métti bu 7 par exemple nous soxla 7000 milliards les sénégalais yi koy joxe 18 millions de sénégalais yëpp joxe connus, ku ne dina nous ci 18 personnes nous ko ku nekk day gën a donc il faut que ñu répartir charge fiscale bi ma yàgg jël sama dossier tamit liggéey ci gis fraude fiscale notifié ay ne bayiko parce que mbokk diw la xaritu wala wala wala ma dem ba dogal ma téye la mi ma que lu soxla lépp urgence la ci ndaw mi ndaw ñi ci infrastructure ci lu ne formation professionnelle tout est urgent Je ne mais bi fan lañ koy marge pour dem lebi parce que avant ñun diggante deux mille dix neuf surtout ak deux mille vingt quatre dañoo leba leba leba leba leb ba am na foo xamante ne mënatuñ ko leb parce que encours bi ñuy fay chaque weer ci bor yooyu dafa dem ba diis ci état bi boo moytul bu ñu continué noonu dootuñ ko attanu ci te kon mën na créer problème kon lan moo des xool ci biir réew mi ñiy fay ñu nee leen gàcce ngalaama continuer leen fay ñi fayul ñu ne leen nag kaay leen nag ngeen def ni ñëpp. parce que fii amatul kumba am ndey ak kumba amul ndey loolu mooy jubbanti jubbanti nag bu nekkoon lu ñuy naan dañuy jàpp ne ndox mu weex tàll la ndox mu weex xatt la parce que neexut li gën a confortable pour quelqu'un koo xamante ne daawul woon fay impôt mooy ñu bàyyi ko rek mu bañ a fay impôt parce que yeggul métit bi mais bu mu ko buñ ko bàyyilee mu bañ a fay impôt boobu tamit mu ngi ñeneen a ngi ci loru dañoo ne juste ñu dul woon fay gaay leen ngeen fay ñi nga xamante ne dañu leen doon jàppal tànk amatuñu ku leen jàppal tànk parce que ñëpp dañoo war a contribuer kon performance yi nga xamante ne administration fiscale ñu ngi koy def dès 2014 la ANSD def un rapport ne les performance administration bi kese kese kese lu mu ñuy côté ci perte de recette 214 milliards la maanaam saa yu ñu defaan réalisation ba at bi jeex bu ñu bu ñu nekkoon à au max de nos performances mënoon nañu def deux cent quatorze milliards supplémentaires ñun à l'intérieur xamoon nañu ne ëpp na deux cent milliards di dem par rapport ak li nga xamante ne war nañ ko mën a def beneen bi nag mooy man du man maa inventé impôt de ñun ñi nga xamante ne ñooy suñu ndaw ñu ñuy teewal assemblée nationale ñoo dem assemblée nationale voté code ba ñuy wax code général des impôts chaque année député yooyu voté loi de finance au non du peuple pour wax askan wi président de la république am nga autorisation dem jëli ji xaalis ci askan wi jusqu'à hauteur de temps bu doyul jox nañu la autorisation pour nga dem leb ji kon ñun ñoo consentir ñun ñoo nangu ne que dañuy jël ci suñu alal jox ko réew mi pour ñu mën a liggéey pour mu mën a liggéey loo xamante ne ci njëriñu askan wi la dans cet exercice tout le monde est obligé participer maintenant pression fiscale bi en réalité c'est pas une pression en réalité c'est qu'on a juste fait sauter un verrou de blocage bu donne privilège à certains ba paraît di gën a loofloo ñenn ñi nga ne doon supporter la pression mais loi boobu wax ne ni sart yi la impôt loi boobu dit wax ne ku ñëwul nan lañ koy def maanaam bu ñu xaaree nit mu war a fay fayul te charte yi nañ dafa loi dafa ne dañ koy njëkk a bind ne ko ah ameel nga ñu lii bu tontuwul lu mat weer ñu jàpp ne luñ ko wax dindiwu ko bu tontoo bu ne lu mu wax ne nanguwul din andi ay firnde ñu ne ko kon ñun ñoo juumoon dindi nañ ko bu fekkee ne nag am luñ ci d'accord am luñ ci d'accordul dinañ confirmer lii bàyyi lale mais ba tey du lool mooy tax ñu dem saisir ay comptes dinañ demaat ci moom nee ko kaay fay amu ah, am possibilité ñëw ne ah d'accord li ma mën a fay nii laa ko mën a fayee muy moratoire bu demee nag ba respecté wul loolu yëpp yenn saa nag mooy waral ñu dem bloqué compte ko nag ah ñun xam nañ fa sa xaalis nekk te bu ñu fa fekkee dara nag fa ñu jël loo xamante ne réew mee ko moom balaa muy ñëw ci yow kese kon lii rek la nit ñi def mais yaa mieux loi boobu dafa ne boo demee jël impo ci ay nit comme mu nekk TVA boo facturer wala mu nekk retenue à la source boo def ci ay nit maanam fay leen salaire tànq seen impôt nekk da nga koy reversé ji téye ko mais loolu tudduwul neneen lu dul détournement de deniers publics maanaam boo amee salaire yi nga waxtaan ak moom ne weer wu ne da nga koy fay cinq cent mille weer jot nga fay ko quatre cent cinquante mille ne ko yoon moo ma ne ma tenq ci cinquante mille pour sa impôt ndax citoyen nga Sénégal dajale ko ba mu nekk cent mille cent millions deux cent millions ba ñuy wax sax ay milliards nga tey ko pour defar sa bopp loolu détournement de deniers publics lu boo xamante ne de la même façon que un ministre wala un directeur général des impôts ou un directeur général d'une administration wala wala d'une société nationale nu muy defee détournement de deniers publics amul différence détournement détournement la yoon ne na yoon wax na nag ko def loolu lan la yoon wax loolu lañ la war a def du man maa koy wax de yoon bu ñu voté moo ko wax mooy dañoo directeur général des impôts dafa war a porter plainte ci procureur de la république te dès que cette plainte là est portée ñu gis na que les faits sont réels le mandat de dépôt est obligatoire pourtant ba fu ñu toll porter une plainte contre kenn pour ñu jàpp ko mais xool leen actualité internationale bi dans les pays yoo xamante ne développé nañu nanguwuñu kenn foowe impôt te dañ ciy tëj ay nit di ci topp ay nit mais ba léegi defuñu ko parce que dañ jàpp ne que am na pédagogie bu ñu war a sensibilisation ak éducation citoyenne waaye ku ci nekkul dëgg ci dëgg nag xam xamal yow nekkoo ci dëgg nga jéem a ajusté wu et puis dans la préoccupation bu ñu am tamit pour soutenir le secteur privé et c'est une préoccupation forte ci man ñu gunge leen luy leen war loo lu leen war ñu def ko mais ñu xool naka la gën a oyofee ci ñoom mais nag temps bi ma nekk ci kaw réew mii bu soobee yàlla dina am ñaar ñoo xamante ne ñaar yoo xamante ne moom ku ci tëdd sa xel mën na dal mën na ci dal mooy fay impôt dinañ ko gën a fulaal ci réew mi waaye impôt boobu buñ ko jëlee ba dugal ko ci loxo euh, euh, trésor public dinañ ko saytu ba fu mu war a dugg mu dugg foofu te ku ci def naka sul noonu yoon yoon def nu mu prévoir na loolu la war a def président euh, sakkanal poosu askan bi nekk na lu la yitteel te gis nañu euh, plusieurs fois nga bamtu ko euh, mu am nag loo xamante ne bi ngay doog a yegg si nit ñaa ngi ko doon xaar am na fi ay kër yu fi nekk yu mel ni au conseil du dialogue social am nañ fi HCCT am nañu euh, conseil économie sociale environnemental ñu ngi wax sax ba ci fonds politique yu président de la république ñu naan euh, dañ doon xaar mu supprimer ko mu bëgg a xam ndax da nga changer avis wala déet beneen bi mooy am na ay audit yoo xamante ne tàmbali ngeen ko yaa ngi koy wax léegi nii euh, ñi nga xamante ne nii dañ leen di topp bu ñu defee faute de gestion ba gis ko lan mooy doon seen atte bu dee ay résultats am na ci yi ngeen jot dooratu lan la ak naka la ñuy def ba jubal euh, fexe boo yoree xaalis askan bi mu nekk une règle ñu bañ a di ko salfaañee euh, loolu itam lan ngeen di def pour que nit yi jëfe ko nga baal ma mu dolli si benn bu ndaw rek mu di euh, gis nañu it bi nga faloo diir nekk nga ci benn hôtel de la place ñu bëri naan président lu xew ndax pare dañ fa sotti ay xar fa fuufa wala dafa am lu fa nekk ba tax demagul ba léegi ndax loolu ñu ngi doon xaar poos itam ñaata lay coûter li nga xam ni mooy sénégalais boo fa yàggee d'abord man bima falo avant may falo sax dañu def campagne électorale pour commencer fi nga mujjé def campagne électorale ba pare ma ñibi sama kër wajalé fofu dem voter ji ñibisé ma delu ma sama kër ñu né ñu nak bu ñu noppaloo nañu jël fenn fo xamante dañ fay wéet parce que militant suñu parti mom ak suñu coalition dañu xawa xër ñu ne bu ñu nekkee ci kër yoo xamante ne xam nañu ko wala ñu dem siège duñu mën a liggéey ak dal pour suivre résultat yi ci la ñu dem jël quartier général hôtel de la place pour ne pas le nommer fa demee ñu commencé suivre résultat yi ba guddi gi jot bi guddi gi jotee heure yi wala lu ko romb ñu commencé ne pré kii kii gañ gañe na dès que gañe naa rek la sécurité de l'État commencé ñëw tamit récupérer pratiquement seen président mu am ay exigence ak charte nag par rapport à la sécurité mënatuma dellu sama kër bëgg naa fa dellu ay yoon ñu ne ma xool nañu ko mais pour assurer sa sécurité du foofu nga mën a nekk sinon waa koñ gi dootuñu dund te dootuñu am fu ñu génn ma toog hôtel Azalay ba jekki ñu nee ma fi ma toxoo mooy King Fahd am naa fa suite boo xamante ne su ma fa demee du ma fay ma ne kon naa fi jóge gaaw ma jóge foofu dem waaye pour vous rassurer ay nu mu tuuti tuuti ñetti semaine jóge naa foofu ñëw naa fii nii donc du question xaar-xar foofa du question rien du tout question doon xaar ñu defar fii la sax parce que fii tëgguñu ko pour euh, ni ma ni ma ni ma mën a dëkkee sama njaboot ma mën a dëkkee noonu c'est pas construit pour sa dañ ko tabax pour papa yaay doom man nag ko mag papa yaay doom dama nekk ak papa yaay ak yaay ak ñeneen donc du coup il fallait que ñu defar donc bu ñu defaree travaux yi jël nañu lu ñu war a jël bu ñu paree ñëw naa dëkk si du affaire xaar xa foofu du affaire rien de tout ma instant yi fa jóge bu ma jógee fii fa laay delluwaat incha allah donc loolu c'est par rapport ak euh, dëkkuwaay bi par rapport ak euh, rationalisation train de vie de l'État effectivement ñun jël nañ engagement par rapport aux institutions change wuñu ab benn yoon waaye c'est des institutions yoo xamante ne c'est prévu par des loi yoo xam pour nga changer ko foog nga dem changer ci la charte fondamentale wala nga changer sax yeneen loi yoo xamante ne bu ko majorité qualifiée joxul doo ko am te ku ne xam ne ñun majoritaire assemblée nationale kon am na loo xamante de boo et songee tamit heure bii doo ko am beneen bi mooy temps parce que depuis un bon bout de temps vous vous en rendez compte nous avons de la logique des urgences sommes dans une logique de long terme Nous avons ñu dal temps pour être sûr que les choix yu c'est les meilleurs choix pour le Sénégal pas les meilleurs choix pour moi ou pour Kenen, mais les meilleurs choix pour le Sénégal waaye boo xoolee wax la rationalisation rationalisation train de vie de l'État ça suffit pas nga dindi HCCT dindi CES dindi leneen wax naa la par rapport à la commande de l'État wax naa la par rapport à aux méthodes d'approvisionnement de l'État que ce soit sur ceeb que ce soit sur hydrocarbures yi nga le FMI mu ngi ñuy wax FABARI. que lu ñuy def ci ay subventions dafa bari ñu war par rapport au à l'énergie Nous, nous koy que c'est moi faire am de meilleurs prix d'approvisionnement pour baisser la charge d'approvisionnement ba pare dem faire allocation bobu fenen et ils ont raison par rapport aux subventions parce qu'en réalité subvention yi nous koy défé dafa xoolul xaaj ak seen ñu Nous, soxla ak soxla ko soxlawul ñu lañ koy jox du coup c'est lourd pour audit yi corps de contrôle yaa de def seen liguey amna lo loo fekk nañu ko fi ci ay rapport ñu doon wax ne dañ ko teg ci cionj man awmu cionj bi may teg ci ben rapport rapport yi ma fekk ñu paré genn nañ rapport yi ñu nekk di def genn nañ à la 5e année rapport yi nga xamantene ñi fi nekk di gérer te ma te ma tàbb ño fay ño fay ño fay nekk seen rapport tamit day genn bu rapport genné nak ñi def rapport ñi def mission bi yana say ñu né dañuy demander ouverture enquête judiciaire procureur lañ koy jox bu boba procureur dina def liggéeyam parce que boudé man rek ken enfreindrul benn yoon liggéeyu liggéeyu attekat yi mais nak na nit ñi li nga xamantene ne mënuma nek ci logique bobu man duma duma koy fayantu nan bu ngeen démé xol sama émission yu yag lepp luy en ak mer ak fajjal faj sa mer man nekkuma ci lool man lima metti ñu tooñ ma ko man ma moom ko man loolu dama ko baale parce que dama sant yàlla ci fi mu ma jaarlu donc toppañ ci kenn ci lenn maintenant nit noo ko bëgg a bëgg topp tamit foog nga am loo ko toppe man mënuma ne nit ñi liñ fi doon defee yoon jaaru jaaduwul ba ma woote pour ñu xoolaat yoon lu muy doxee ba pare may gaawantu di fayantu pour satisfaire ay nit ñoo xamante ne dañoo mer mais de la même façon aussi man couvriruma kenn ñi ma fi fekk ñu ñu gérer ba pare ak ñi ak ñi ma nekkal kon que ce soit pour audit que ce soit pour leneen li euh, la rationalisation train de vie de l'État et institution yi man amul lenn loo xamante def ci changement pour ce qui est des fonds politiques dama fekkul sax ay fonds politiques non fekkuma fi ay fonds politiques non j'ai rien trouvé par rapport ak lu ñu le président de la République fekkuma fi dara dañ ko consommé ba mu jeex oui te yemul sax ci loolu kese mais bon yàlla baax na ak lu yàlla xam doy na. non non non pour la clarté du débat fekkuma ay fonds politiques yi nga xamante ne moom la wax ne lañ appel président de la république. donc li ci des nag mooy li ñu wax ci fonds politique yi mooy la transparence ak par rapport objectif bu tax mu am est ce que c' est des fonds yoo xamante ne dañ koy jox président de la république ak quelque suma nu mu toll pour mu ci mu am des leviers d'action souvent même social Hein? Dieu sait que je ma toogee ba Si ci li ma sut secourir ay nit ci ay opération ci ay leneen ak leneen tey dama xëy ñu ne ma telle personne opéré nañ ko alhamdulilah rabil alamin ma sant yalla parce que lool tamit xeyna na bu ma ko deful won mën na am ñooñ duñ am ci kuñu dem donc ça peut être important li ci dess nak c'est pour d'autres choses yo xamante demander nak les autres institutions de la république du président kese mën na nekk le président de la république

mu am au moins deux trois quatre personnes yoo xamante ne nañ xam de quoi il s'agit ak fan la dem mais ci lañ ciy def généralement ci ay actions yu ñu koy destiné dëkk bu ne am ko du loo xamante ne mën na nekk dans la place publique malheureusement. si reddition reddition des comptes yooyu. monsieur le président mhm. monsieur le président de la république. dañoo gis si ay bis yee ñu weesu. ñu gis nga dem si géej ga. ñu lancé officiellement production pétrole maanaam loo xam ne yëpp askan bi ñu ngi ko doon xaar. ñu gis mais dañoo seetlu ne ci dëkk Afrique yu bëri bu am ressource bu feeñ ci développement dëkk bi léegi ñu doon laaj yenn stratégie ngeen teg mu nga xamante ne Sénégal yëpp nañ ci gis seen bopp. beneen bi mooy ku wax ressource minière de façon générale da wax ay contrat jàng nañ ci communiqué conseil des ministre bi weesu ñu ne teg nañ benn kuréel goo xamante day sat day day saytu ko contrat yi. li ñu buggoon xam mooy est-ce que ñi nga xamante ne seqal nañ ko d'accord nañ pour renégocier contrat yi. le cas échéant Yen, fan le Sénégal jusqu'où le Sénégal est prêt à aller pour renégocier les contrats. Euh, d'abord, à l'époque, <coughs> le premier ministre à l'époque, président du parti euh, de Pastef fait un livre pour l'histoire buñ ko doon wax ñu bëri dañ ñu doon wax ne non benn toq pétrole wàccagul ñuy wax mais toq bi wàcc mais ci contrat yooyu la ñu doon wax ne bu wàccee naka lañ koy séddoowee boo boo toogee doo boo toogee ba toq bi wàcc fekk na wax nañu ba pare naka lañ teg nañ charte yi ñu koy séddoowee ba pare am na loo xamante ne c'est déjà signé kon yenn stratégie yi ñu waroon def yëpp xëy na ñu amoon chance nekk fi ci njëlbeen ñoo ko waroon def xëy na liñ ci def

Si démé ba sédo am ci diggante multinational buy investir ak dëkk bi mom ressource bi il faut qu'il y ait un bénéfice mutuel parce que boko de nit ñi duñu ñëw mais ci li nga mëna am tamit bu ci dara ma conviction est qu'on aurait pu négocier mieux négocier parce que d'autres pays Afrique wala fenen ont mieux négocié pour am le maximum possible par rapport à ces ressources donc stratégie li ci dess mooy xool les pistes de renégociation dinaa ci ñëwaat léegi et surtout bu ressource bi ñëwee ñu xool naka lañ ci sukkandikoo pour développer yeneen secteur pour éviter lu ñuy wax la malédiction du pétrole malédiction du pétrole wu tekkiwul ne que pétrole fu mu am rek day andi ay guerre na non c'est pas ça mooy ñi ko am ba pare jàpp na du jeex ñu sàgganee yeneen secteurs yi ba bi mu jeexee dootuñu xamante nu ñu def beneen tur bi ñu koy jox sax mooy le syndrome hollandais donc stratégie mooy tey naka la ñuy sukkandikoo ci ressources yooyu ñu amee ci pétrole bi ci gaz bi pour suqale yeneen secteurs yoo xamante ne du mos a jeex parce que tant que suuf ngi am ni ñaa ngi dinañ béy kon naka lañ ciy def pour développer formation professionnelle pour gën a magal digitalisation ak métiers yi nga xamante ne c'est les métiers du numérique naka la ñuy def pour gën a suqale agriculture ak élevage ak pêche ak yu demee noonu donc stratégie yooyu lañ ak xool naka la ñuy yaatalee suñu part dans le cadre d'une renégociation yéen ñëpp ay seede ngeen bu ñu ñëwee ñu ne woo la conjoncture internationale dafa metti ay importateurs dem toog ci plateau yi wax seen xalaat peut-être en toute bonne foi ne duñu mën mënuñoo def dara amuñu marge na mënuñoo wàññi dara loolu lañ waxoon du wàññi nañu wala wàññiwuñ wàññi nañu instant yi tamit ñu ngi ne mënuñoo renégocier maa leen ko wax fii dinañu renégocier te bu ñu renégocier ba pare da ngeen gis lu ñu amoon avant ñuy renégocier ak lan lañ am bu ñu renégocier ba pare dañoo war a gëm suñu bopp sénégalais yi un pays comme le Mali l'a fait ils ont renégocié te dafa bokk ci lu ñu réussir mooy ils son fait xam nga code pétrolier bi ngay def pour attirer investisseur toujours day bëri ay avantages mais boo demee ba découvrir li nga war a njëkk a def mooy taxaw pour tëggaat sa code parce que jot nañu gis ressource ben bien parti bokkul ak kenn mosu fi gis ressource kon bu nit ñi xamé né am nañu chance baña perdre ils sont plus enclins à investir kon attrait bi amna ba paré le Mali a réussi à ce que ñi nekkoon ci ancien code pétrolier wala code minier ci bu muy renégocier malgré cette clause de stabilisation mu duggal leen dans le dans le nouveau code pétrolier et dans le nouveau code minier ñu perdre ay avantages dans un code qui était plus attractif donc dans un code qui est moins attractif en termes d'avantages ou d'exonération et ça ça va à l'avantage du Mali et pour vous dire l'on ay experts sénégalais ñoo au def kon le Mali mënu ko def ci secteur minier ñun mënuñu ko def ci secteur minier alors que nous, leen ko defal ay sénégalais Quand la renégociation dina am tenant compte des intérêts des des comme je dis bénéfices mutuels. Le Sénégal bi may dit engagement bi ma jël te dégg ngeen ko ci prestation de serment. mooy yaakaar dina fi gën a màgg dina gën a dal jàmm dina jàmm dina fi gën a am te yor yorin gu sell dina dina gën a am te bu boobaa sénégalais dinañ xam que lan mooy différence entre yorin gu sell ak yorin gu sell boobaa ils seront beaucoup plus exigeants parce que xam ne l'horizon des possibles est beaucoup plus lointain que lu ñuy yaakaar renégociation dina am. ci loolu monsieur le président. mayee rek euh, xam nañ ni Sénégal ak Mauritanie. Euh, dañoo tàmbali woon audit coût yi nga xam ne moom moo am ci GTA gannaaw multinational yi ci loolu la ñu sukkandiku bu ñu exploité xaalis bi ñu jël li nga xam ne defoon nañ ko ci ba pare balaa ñoo jox suñu wàll euh, audit boobu lan la wone est-ce que pare na euh, lan la ci Sénégal fas yéene def. waaw Souleymane xam naa day dugg ci reddition des comptes bi nga xam ne Pierre Edouard moom la war a aborder ak président. Pierre, oui, c'est bon. Juste au pétrole, c'est ah, tout. Ah, ah d'accord, très bien. C'est une, petite question. c'est une continuité. Mm. Pierre booleel ñaari question yi. question bon reddition des comptes yi Aram abordé déjà avec avec président. Euh, je pense que nous avons progresser avec monsieur le monsieur le président. Wow, euh, peut-être répondre cette question Souleymane après mon ma ñëw. ñaari ñaari ñaari audit des coûts moo am. audit des coûts beaucoup ak du contrat pour renégociation auditu contrat bi pour renégociation bi lu ñu ciy ut mooy un est-ce que procédure d'attribution bi bu dee ay bloc la wala procédure de de de signature yi convention wala consensus est-ce que jaar na yoon maanaam respecté na suñu yoon lu respecté wul yoon nag mën nañ ko xoolaat beneen bi mooy est-ce que buñ ko bu fekkee ne procédure d'attribution bi ak de signature bi ak yëpp correct na est-ce que lu mu teg ci ay charte ci ku ne ku ne wàccoon ak moom notamment l'entreprise étrangère concessionnaire te bu des yoon évidemment vous nañ ko teg ay daan mën nañ waxtaan ak ñoom xoolaat naka lañu def ba ñu tegwaat ci yoon kon ça c'est l'audit des contrats en tant que tel audit des coûts ci matière pétrolière ki ñëw investir day dugal xaalis vous bu commencé exploiter nag day ne ah man dugaloon naa cinq mille francs kon man su ma defee dix francs il faut que ma génnee sama cinq mille francs yi ba pare ndax loolu maa ko ci def ñu door a xool nag cinq mille francs yi des naka lañ koy séddoowee mais bu dee dafa ne dafa dugal cinq mille loolu moo ko wax ñun tamit dañuy dem xool ndax cinq mille yooyu mu wax ne lool la dugal est-ce que loolu la dugal buñ ko xoolee mu ñu ci cinq mille yi ñu gis ne am na cinq cent francs yu ci bokkul dañu ne ko ah cinq mille quatre mille cinq cent nga kon fi ñu waroon séddoo wàññi waroon dindee cinq mille pour séddoo li des 4500 la ñuy dund parce que koo yi tolootuñu noonu ñaar la bu Woodside bi commencé exploiter pétrole def nañu ko am nañ luñ ciy contester par rapport ak koo yi nga xamante ne wax nañu ne engagé wu nañ ko engagé nañ ko te bu ñu defee audit ci d'accorduñ ci mais loolu c'est un exercice banal dans l'exploitation pétrolière te waa Woodside nangu nañ ko lu muy indi war met nag day meg comme procédure fiscale rek mën nga ne di infraction la mu ne la di infraction ngeen xool ba fi ñuy fi ñuy daanu mais gëm naa ne que waxtaan yi bu amee dina am lu wàññeeku ci coût yi parce que ñi def ñu def ñu xarañ lañu te yàgg nañu ko def dans d' autres pays pour les mêmes entreprises ñu nangu ne qu'il y a une exagération du des coûts pétroliers mu des beneen bu côté GTA boobu jotaguñ ci mais li ci des lu tuuti la buñ ci jotee tamit on va la même procédure mooy nee leen ah gis nañu ne que li ngeen wax nag moom ngeen dugal tolluwul noonu notifier leen li ñu ci contesté ñoom ñu andi seen réponse ñu toog discuter béykoroog ñuy xol lan lan fan lañ am deug ak ñom fan lañ am deug pour ñu mëna am les vrais coûts qui seront déduits ñu wo cost oil avant pour déterminer le bénéfice bu ñu woyé profit oil kon foofu lañ ci toll merci beaucoup Souleymane merci beaucoup Pierre comme euh, nee nga alam amna lu bari lu mu euh, aborder ci reddition bi xamna dañuy jall euh, ci benen thématique bi nga xamanté bi mom mo soxal urgence sociale yi te xam naa ñëpp mom lañuy xaar ndax nag euh, ceeb beeg diwlin beeg euh, inondation yeeg euh, xale yi seenub liggéey ak ak euh, nan lañuy ñuy gérer nawet bi di ñëw yooyu yep ay question yu euh, ama am solo la te aussi luñu wara aborder la ci waxtaan wi euh, xam naa dañuy joxat kaddu gi Ndeye Marième mu ñew ci li nga xamanté bi moom moo soxal li nga xamné mom moy affaireu migration bi lëmbe askan wi ak Migi Maram wax mom ci li nga xamné mom moy emploi des jeunes bi nga xamanté bi aussi question bu am importance la. oui alors monsieur le président. bu sama lim maanaam téeméer boo jël fanweer ba ak ñeent ANSD wax nañ ni ay ndaw lañ yoo xam ni amuñu liggéey amuñu formation amuñu éducation ñu gis ni yow en tant que président de la république su fekkoon dañuy def xayma la indi si bopp réew mi ndaw yooyu le daanaka part bu gën a rëy ñoom la ñu am espoir bu rëy boo xam ni sa mun naa wax ni si yow lañ ko teg

ñu bëri ñu ngi continuer également di réclamer yoon def liggéeyam le dossier yaa ngi suivre actualité gis nga lu xew ces derniers temps lan nga leen état du Sénégal yan disposition tey jii la le a ba nga xam au moins suba ku ci yeewu di nga xam kat yoon amna lo loo ne def nako ko seen dossier. d'abord par rapport ak emploi des jeunes manam nak lañu def ba ndaw ñi am liguey identifier secteur yo xamné mëna absorber lu bari ci main d'œuvre maintenant des fois nit ñi ne nag amul liggéey fekk ne moom boo ko laajee lan la mën a def formé wuñ ko pour mu def un travail spécifique à part travail bo liggéey boo xamante ne dooleem rek la ko mën a defee mais ala kuli xaal ki am formation bëgg liggéey mënul liggéey ak koo xamante ne amul formation wala formation des na ñoom ñaar ñëpp suñu préoccupation la maanaam ñi ñu bàyyi xel la ay levier yu bëri lañu war a yëkkati bokk na ci ñu xool secteur yoo xamante ne mën na mobiliser ñu bëri bokk na ci agriculture il faut que ñu ñaaxaat nit ñi organiser leen pour ñu bëri ñu mën a béy mën a delluwaat ci mbéy mi te bari na ñoo xamante ne bëgg nañoo béy parce que même ñiy dem ci agri immigration clandestine sans formation souvent sans qualification bu ñu demee foofu ci mbéy la ñuy nekk kon li ñuy béy foofu suuf ak ndox rek moo ko def ak xam-xam goo xamante ne mu ngi fi suuf saa ngi fi ndox maa ngi fi mais il faut que nous yokk fi Il y avait des programmes qui étaient là malheureusement qui n'ont pas été euh, concluants pas que programme en tant que tel mais il ci niñ ko yoré Si vous avez ngi ministère de l'agriculture ci fanni yépp mu ngi installer coopératives agricoles partout pas pour l'hivernage, mais pour qu'après ça nous ñi mëna continuer am bu ngeen xolé ministère de la formation professionnelle mu ngi am di signé ay partenariat yu bari pour ñi nga xamantene ñu ngi dans l'artisanat ñu mëna am formation bu gëna a développé wu am produit yu gëna bax baax mën leen jaay fi génn Sénégal pour mëna gëna mag mëna gëna mën employé ñeneen état ci bopam nak conviction bu ñu am du état moy absorber toute cette demande parce que c'est de vocation état motax bo boo sama discours 3 avril 2024 que je ci doon wax que nous bëgg créer des emplois pour des jeunes sukkandiku le secteur privé bu am parce que état da koy jappalé ndax xam nañu secteur privé pour créer emploi kon la stratégie c'est à la fois de xol naka former pour qu'il y ait une adaptation entre les qualifications et les besoins du marché côté le gouvernement a ci def ay jéego yu am solo pour que nous puissions produire, produit non seulement les entreprises qui sont dañu mais les yi ñëw tamit dañ fi parce que xam que la main d'œuvre qualifiée est là mais qu'elle est aussi bon marché Benen bi moy les autres secteurs notamment le secteur primaire buñu xawa xaw tamit le secteur secondaire naka lañ koy renforcer parce que le secteur tertiaire bi rek muy service yi dafa saturé malheureusement l'essentiel des formations fa la donc le secteur primaire et le secteur secondaire l'industrialisation industrialisation transformation et wu il boobaa une plus grande demande de main d'œuvre pour absorber ndaw ñooñu kon cette stratégie là est en pied d'œuvre Et, Inch'Allah, vous di que dans la vision comme dans euh, le nouveau référentiel il ci am euh, euh, pàcc gu am solo gu gu gu gu concerné ndaw ñi jël claire conscience parce que au delà du fait même ko ñoo ma fal mais daan gis rek ay ndaw ñuy jël batu wala gaal di génn réew mi naan dañuy uti ji liggéey ba yenn yi di leen ci fekk loolu waxuma sax nga am responsabilité jiite état mais boo duggee ci boo dëkkee ci dëkkuwaay buy loolu di xewee rek war nga am lu la metti te boo taxawee ci fi nga koy saafara évidemment ñàkk conscience c'est pas possible elle est forte conscience bien avant et une grande responsabilité qui nous incombe boo xamante ne dañ ko nar dañ nar a wàccoog moom incha allah bi li ci des nag évidemment peut-être c'est un volet justice du pour ñoom kese yaa a beaucoup de personnes yoo xamante ne justice bi ñu bëgg amuñu ko woon moo waral ban bi ma ñëwee du ne nañ dem dialogue dara xewul li nit ñi xamoon ci jaloog mooy jafe-jafe am na ñii dox dem fii ñii dox dem fii ñi ne nañu ñoom woote woote dialogue dialogue de la dernière chance nañu àndiwaat jàmm nañu waxtaan jàmm man j'ai dit nañuy waxtaan ci bi jàmm amee pour ay baña a am nañu waxtaan ci loo xamante ne ñoo ko bokk ça transcende les mandats ça transcende les individus maanaam de question de de de nekkul woon question Senghor nekkul woon question Abdou Diouf nekkul woon question Abdoulaye Wade nekkul woon question Macky Sall nekkul question Diomaye te du nekk question kuy ñëw question askan wi la buñ ko waxtaanee ñu xam ban justice lañ bëgg a am. prise en charge de ces yoyes ak ses instructions, comme tout ce qui s'est passé autour des rapports xaarul assises yi loolu tamit na leer la mise en œuvre des assises xaarul les xaaru justice sera faite pour tout le monde et pour le futur comme pour pour pour ñi nga xamante jot na xew ñu nekk ci dëkk bo xamantene dara daf fi xew ñu né dara en fait ñu né duñu xol ndax yoon amna ci wala amu ci wal maintenant li sénégalais yi war a comprendre mooy du man maay ne yoon defal lii bul def lii pourquoi ma def les assises parce que dama bëgg justice boo xamante ne dafa jël responsabilité am indépendance am di doxal lii cëram ci réew mi ci afia maanaam kenn bañ ko teg pression kenn bañ def intrusion ci fonction pour muy ñàkk indépendance wala leneen loolu moo tax ñu defar assises li ci tegu nag mooy justice de am tempo depuis je suis ça fait au moins un mois lañ soumettre un projet de mouvement dans la magistrature comme nous muy dans d'autres administrations parce que nous faté fàtte mukk on aura beau parler de pouvoir judiciaire les magistrats c'est des fonctionnaires ñu def concours comme man état du Sénégal recrute les former les, affecte les di am nak pour di bouger lo parce que ken ne nek pen de façon statique pendant toute sa carrière mais dañuy évoluer en fonction de leur ancienneté de leur grade et des besoins de répartition de ce personnel là ko lol dara gënu ko naturel mais biñ mako joxé depuis un mois ma ngi def samay enquête and ci ñi may wara andal mobiliser ci service état bi yépp pour xam kan mooy kan fan la jaar lan la def pour que les nouveaux visages yi nekk ci yenn postes yi de responsabilité yi nga xamante ne am na ñi fa nekkoon bu ñu egsee ñu ne ah ñii ñëpp a seede ñu ne ñu jub lañu ñu indépendant lañu ñu mën seen liggéey lañ parce que quand l'homme qu'il faut il a la place qu'il faut dina def ce qu'il amoon nañu justice am na luñ ci am na lu ci baax am na luñ ci war a defar mais terewul que ci contexte justice boobu la ay magistrat defee loo xamante ne sénégalais yu bëri ñu ko doon saluer Quand même avec le système existant il y a des magistrats qui ont le peuple bi am na amel na reconnaissance ndax mais quand à a di dossier bi kii il faut que je me fajal ko kii am non c'est pas comme ça que ça marche j'essaie d'avoir des règles objectives et universelles d'application de la loi Je concerne concerné concerne la concerne ñeneen concerne les victimes d'hier les victimes d'aujourd'hui et les victimes de demain

Il y a des règles. Il y a le Conseil supérieur de la magistrature qui doit être convoqué, qui va statuer et qui va décider de valider les propositions qui ont été faites. mais il y a du Yagati ndax bi bu et que dans les prochaines semaines il y aura de des mouvements dans la magistrature et j'espère que nous, ils seront aussi prendre à charge parce que on dit c'est pas que par rapport aux jeunes ak mais on a des rapports pour lesquels les, recommandations des corps sont, claires. Comme on est que rapport force COVID-19, comme on est que y a un rapport yu OFNAC def, voilà, yu CENTIF def, sur lequel il y a moins de bruit, voilà, le cours des comptes def, voilà, le IGE def, voilà, ça, yu inspecteur, inspection interne yi def. Moi, que justice sera faite, en fait, ce n'est pas spécifiquement pour ces événements-là, mais dëkk bu amul yoon ci coow lay coow dëkk ak ci féewaloo ak ci mar ki yoo xamante ne ñun soxlawuñ ko en fait mais la justice pour finir quand elle se rendra dama bëgg qu'elle se rendre avec la plus grande sérénité que nit ñi xam ne que lii du diw mooy fexe faagaagal diw moo tax mu koy fexel lii mais que yoon moo am ci réew mi te moo nekk di dox monsieur le président dañuy dellu si waat tuuti ci benn poñ yaa ngi koy tudd léegi muy migration irrégulière ñenn ñi di ko tuddee mbëkk mi ñeneen ñi di wax ne barsa wala barsa muy benn phénomène boo xam ne Sénégal dafa yàgg di jànkonteel ak jafe-jafe boobu ñi la fi jiitu def nañ lu ne phénomène baa ngi existé ba léegi tey ji yow lan nga fas yéene def loo xam ne ñi fi nekkoon defuñu ko ba phénomène boobu wàññeeku. ça revient à la même question que. que Bissanatango mi pas mi ngi mi ngi président tënkoon na bi muy wax ci emploi des jeunes. nous euh, ngi woon ci affaire justice relation avec les institutions peut-être nous continuer sur cette lancée avec euh, la situation politique du pays. Euh, diggante nguur assemblée nationale. Ah question yi jëm foofu am une question monsieur le président l'actualité politique mooy d'abord cette crise bi am. ci euh, diggante euh, ce premier ministre ak euh, assemblée nationale li jaaxal sénégalais rek mooy vote mutisme ñëpp a ngi naan waa président moom du wax du àtte xeex bi parce que en réalité bras de fer la woon boo xam ni eggoon na si niveau yoo xam ni ñu ngi doon xaar yow nga nga addu si lan moo waral nga nga maandu si Eh, wala eh, dengan da nga waxtaan ak sa premier ministre ba xam ni moom mi ngi mëne combat boobu de manière ni nga ko bëggee wala bokk da nga jàpp ni say ñaari institution la rek da ngay toog eh, nga arbitrer au dernier ya, moment beneen question bi sa relation ak sa premier ministre ñu bëri dañoo ni Ousmane Sonko il vous fait un peu de l'ombre loolu est-ce que lu ngeen déggoo la que ne yow dangay nekk dans l'ombre bàyyi ko moom mu dem jël lépp euh, sur sur lui wala boog euh, moom moom mooy xadaram moom moo jël initiative initiative am di dem di dem euh, au front yow nga toog rek di ko di ko seetaan lan mooy seen relation yéen ñaar. <laughs> d'abord par rapport ak lii xew assemblée nationale noppiwuma bankuma sama yoxo mais démarche bi ma jël du démarche boo xamante ne damay woo presse. di ko ci di wax ne maa ngi def lii wala ma ciy communiquer ci canaux yi may communiqué notamment conseil des ministres wala leneen li xew tamit fii la ñu fekk ñun ñëpp mënuñu changer les faits ni l'histoire bi ñuy wax ci règlement assemblée nationale bi boobu ñun falooguñu kon problème la bi fi nekkoon avant ñuy egsi bu mu egsee parce que y a eu un changement institutionnel le premier ministre dem na ñu dindi ko ci seen règlement premier ministre ñëwaat na ñu war ko delo delloowaat ci seen règlement delo guñ ko le premier ministre dès le 16 mai le bindon ay ministre am nee leen pour ñu remonter seen données pour la déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale lool lañ bind ci circulaire bi kon koku mu ngi ci logique dem def sa déclaration à l'Assemblée nationale mais bu ko ben député interpellé né ko bu fi ñëw parce que règlement intérieur bi Si sa prédécesseur a leen waxoon ne adapté tul ñu bañ ko changé ba tey toogal bu ñu changé ko mu répondre ko c'est quoi de plus normal après li ci metti waa assemblée nationale mooy nee na leen su ma génnee ko am qualité mais naka ma di jël pour moi c'est une question d'humilité ñu nekk assemblée nationale ay ndaanan lañ ñu xarañ lañ mais c'est que 165 personnes sur 18 millions de sénégalais donc évidemment si une faisons une sélection sur 18 millions de sénégalais et de compétences potentielles dinañ am une meilleure qualité avec beaucoup plus de spécialités, spécialité et d'expérience d'expertise en dehors de l'Assemblée nationale dans le principe même évidemment comment tenir un débat tenir l'Assemblée nationale dina une qualité de ku ne ci biir assemblée nationale bi. non wax non maa ngi ñëw non non waxuma loolu. je suis en de dire lu métti assemblée nationale mooy bi premier ministre nee na bu ma ko defee ci biti dina gën a am qualité. ma ne gën a am qualité boobu mooy nangu na ne qualité dina am assemblée waaye ci biti lay qualité de qualité de EP. ma ne loolu warul métti waa assemblée nationale parce que question humilité la kese muy benn bi ci tegu mooy wax dëgg yàlla politique nag. ku ne xam na nag du raayante yenn saa yi mu am ay picc yenn am saa yi mu am ay xuloo wala ay mbiicoo mbaalo loolu ak politique ñoo ànd waaye nag bu la nit waxee loolu mu metti la bul na man damay dem violer loi parce que le document d'orientation budgétaire bi ñu waroon discuter à l'Assemblée ministre de l'économie et des finance préparé ko ñu adopté ko en conseil des ministres mu dem assemblée nationale tok deux heures de temps ñu ñëw ne ko tej nañ session bi do fi def document ki débat d'orientation budgétaire bi pourtant loi organique bi dafa né débat d'orientation budgétaire dafa war am au plus tard le 30 juin lool loi organique la bu en matière finance publique c'est la constitution du Sénégal kon premier ministre wax na ma lu ma joxul kenn autorisation mu violer la constitution financière du Sénégal loolu erreur la mais bi ma ko déggee ba pare dama woo le président de l'Assemblée nationale mu ñëw ñu waxtaan ma ne ko mais defar leen seen règlement intérieur li ci nekkul woon parce que di ngeen ko dind woon ndax premier ministre amatul woon léegi premier ministre am na delloowaat leen ko kii ñëw def déclaration de patrimoine déclaration de politique générale am loolu jarul ñu bañ a tenir débat d'orientation budgétaire réew mi ñoko bok bokk nañ ko waxtane bu ciow nak mënta ñaka ci politique mais bu ñu yobbu ci salfañi yoon parce que waruma mais waru len parce que yéenay voté rek yoon wo xamante da fay tegu ci ñun ñep y compris man mi kon demal waxtana tak président du groupe parlementaire yep ngeen fexé japp bëss ci numu gëna gaawé ngeen mais la mise à jour du règlement intérieur parce que wax dëgg yalla bu falsification amé du ñun ñu nekkon majorité ñoko def waye ngeen defaraat sen règlement intérieur premier ministre ñëw def la déclaration de politique générale ku ne xam na assemblée coowoo fa nekk bu ñëwee coow li continuer foofu parce que mënta ñàkk waxtaan nañu ci ci jàmm ci kaf agré dem na démb tenir nañu réunion décidé nañu mardi président de groupe yi dajewaat pour dem ci mise à jour règlement intérieur bi bu ko defee jàmm ne ñooy ci diggante bi parce que premier ministre dafa waxoon lënd lay def kii déclaration devant un jury populaire jury populaire tamit askanu Sénégal la rek mais dama ko ne premier ministre teggil sa tànk gannaaw waxtaan ak assemblée bu ñu ne règlement intérieur bi amoon problème falsification dinañ ko defaat mise à jour nga may leen diir boobu semaine bii di ñëw incha allahu rabbi xanaa bu ñu waxtaanee mardi ci jàmm xanaa ñu laaj leen rek ci njëkk ak teranga falsification bi ñu corrigé ko yow nga dem. def sa déclaration de patrimoine kon man tooguma benn yoon waxtaan naa te gëm naa ne waa assemblée may nañ ñu ma ko en tout cas premier ministre may na ma ko dootu ko doo dootul defati déclaration de politique générale populaire boobu mu ñu waxoon. kon contrairement à que nit ñi di yaakaar liggéey naa ci li ma jàppoon na mooy sama wàll parce que sama discours très 3 juin tamit 3 avril tamit dama ne woon dama bëgg nekk un président qui est au-dessus de la mêlée. au-dessus de la mêlée nag mooy bu problème amee xool. naka ngay waxtaane ku ci lu mu jàppoon moom mooy dëggam pour mën a réconcilier les positions parce que en fait après tout ay sénégalais lañu rek ay mbokk lañu te Sénégal kese moo compté te wax dëgg yàlla traversé nañu ay multi multi yoo xamante ne tey bu ko jarul nañ ko moytu waaw politique c'est pas un long fleuve tranquille les enjeux autour de la conquête la conservation du pouvoir lu ci yàlla xam doy na du Sénégal kese moo am spécificité boobu mais je m'attends à ce que nous, les hommes politiques tamit ñu la hauteur d'esprit ICO tamit à la hauteur de notre peuple qui est un grand peuple pour y aller. nous avons l'économie de certains débats qui peuvent se révéler inutiles Je ci des question aussi la situation politique Je ba tey que ci êtes président et premier ministre bon il faut que les Sénégalais sachent que sénégalais xam mhm. tamit premier ministre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 dem hôtel Azalaï def sama conférence de presse conjointe ak mom lan la waxone j'ai repris les recommandations de la CNRI parce que Sénégal qu'on le dise ou pas man nima ko doon waxee dem la koy wax tay le président de la République a trop de pouvoir damaa ko waxoon fekk ne ko ma président tay la ko gëna mëna wax le président de la République a trop de pouvoir lors de la réforme de la Constitution, on avait institué le gouvernement pour mon une institution. Mais ça n'a pas rééquilibré les pouvoirs ni au sein de l'exécutif, ni entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Si on veut faire des réformes bu mu nekk position positions ci am position de circonstances. Si ku lu ne mu réformes, la xam du avantage je ne suis pas comme ça parce que ma personne

doxal ko pour njeriñu sen njeriñu askanu Senegal, mais bu sen seen agenda nak nyom ñom ñaar tôt ou tard am problème ñaar ñi and di am problème ko mu nek jëk rek jabar mag ak rak papa ak dom yaay ak dom xarit setan fu ne lay dugg mais dina raconter rek une petite anecdote man le le premier ministre du won sama xarit ah du won sama xarit de déedéet mais avant ñuy génn kaso buñu ñu commencé may pour ñu togg ci lañ waxtaan ci situation bi nit ñi di wax mu wóor ma ne li ko mën a def rek mooy kii ñëw wax fii dem wax fële wala di wax fii di wax fële en tout cas ñi compter par exemple pour pour pour pour pour puus ma puus ma ba ma gis sama bopp moom na ñu noppal man je suis pas comme ça je suis quelqu'un de très lucide de très froid et de très humble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 nga ni président de la république du Sénégal beaucoup pouvoir mm-hmm. mais am que peut-être mm-hmm. est-ce que tu que vous que est-ce que vous avez dit pouvoir jox ko jamono wala non c'est pas encore fait parce que ça nécessite des réformes mais je le dis hein, c'est quand il veut mais justement monsieur le président euh, sur cette question là est-ce qu'on doit retenir que yow da nga japp ni benn man naa ngay def et que après liggéey bi ngay def mom moy installer ko mom à la présidence de la République ma enchaîner sur ces réformes là yi ñuy wax noko nara défé est-ce que c'est par référendum wala da ngay jéem dissoudre assemblée nationale bu nekkee da ko nara def kañ nga ko nara def pour que mu jall sous forme de loi constitutionnelle euh, li ci euh, ëpp solo daal moom mooy que ni jàpp nañ ni régler nga problème bi ñu ngi koy doog a xam tey jii nii mais surtout ban euh, ban ban plan nga am justement pour installer euh, monsieur Ousmane Sonko euh, qui est un premier ministre boo xam ne doole bi mu am bi rare na ñu gis ko fii ci Sénégal. Euh, pour mu mu nekk à la présidence. toog ci fauteuil bi ni nga ko waxee non distingue leen ñaari mbir. le premier ministre na amul benn doole. parce que prérogative bi constitution bi moo mooy ne lii la président di def lii la premier ministre di def tey boo demee ci constitution bi la premier ministre est très faible loolu changé wul ci diggante bi ah constitutionnellement le premier ministre est faible. ça dans li comme li doole bi mu am ñaara ko waral boo bëggoon def nit président de la république ba am ko ba am ko premier ministre doo sant yàlla.

équilibré au sein de l'exécutif instant yi nii rôle bu lu mu je xam lan ko may sa stature nga bëgg ko nga bañ ko eh bien voilà celui qui élit une liste de titulaires de députés nga bëgg ko nga bañ ko voilà quelqu'un qui est aidé leen falke en en dix jours ñu génn battre campagne n'y a dégg ko voilà quelqu'un qui a koo xam côté ko il a résisté entraîné ay nit pour lui changer le mais loolu même su ma ci euh, sama bët sax su sama bët sama xel di ko gis te man soxoruma vis-à-vis de ni vis-à-vis de personne nee la tey laa ko gën a yéene mu nekk président de la république waxuma ndaa nag euh, xanaa président bu toog ñetti weer cent jours nga bëgg mu wax ci waxu mandat bëgg ay te duma ci wax gars yi dinañ ko xaar yàgg duñ ko dégg duñ ko dégg de maintenant yan pexe laa am instant yi nii man il fait un excellent travail formidable bu fekkee ne j'ai pu sur le plan international dox agenda bi ma dox te dara sooxewul ci réew mi c'est parce que damaa am premier ministre bu mel ni moom sama gannaaw

te bëgg na la ba nga xamne ki bëgg na la tegg na la fu sori won la ko du ben yon du ñaar yon da koy bàyyee nopp man Ousmane soxlaatul won ma dara pour ma xam fan la fan fan la fan la nekk fan la ma teg 2021 dama tok ba eto bi commencé resserré wu trop autour de moi beaucoup de filature mané na dem village seeti samay wajur bala may ñëwaat parce que bo moytul buñ ma jappé mën na yàgg du ma leen gis may ñibbi si mu woo ma ne ma dañ maa wax ne ñu ngi lay file waaye jubalal sama kër ba kenn fekk la fi ma ne ko man sama kër laay jubal <laughs> parce que bu dee dañ maa war a jàpp autant nga bañ am problème sa kër ma indi la ko 2021 2023 moom moo ma njëkk woo nee ma dégg naa ne ñu ngi lay seet pour arrêter la waaye man maa ngi ñëw foofu ma ne ko boo fi naree ñëw ma dem léegi jox jébal sama bopp dikk soxlawuma paternalisme boobu c'est pas un paternalisme c'est un excès d'affection bu mu am ci man nga am loolu nu mu métti métti métti fii mooy salle conseil des ministres maag moom fee la ñuy le conseil des ministres passé bi ñëpp a demee def nañu lu mat deux heures de temps fii di waxtaan muy wax lu mu jàppan mooy dëgg mooy wax li mu jàppan mooy dëgg parce que bi may nekk sax secrétaire général wala avant ci biir parti bi man li ma xalaat laa ko doon wax du ma xool lu ko neex ak lu ko neexul dañoo habitué de am des divergences normales entre nous ci waroo kaddu parce que divergence yooyu c'est comment rechercher la meilleure idée et la meilleure solution au problème que nous sommes en train d'adresser kon ñiy xaar loolu moom mën nañ maxee fu ñu nekk wax dëgg yàlla mais ah du demee niñ ko yaakaare de alors président euh, euh, ñu ngi euh, gis ne conseil supérieur de la magistrature Euh, bañ la déggee nga àddu ci ba noppi lañ dégg daal mooy nii wii nii non bu président Macky Sall bi <laughs> leerul daal ci suñu bopp ñu bëgg a xam dangay génn wala da ngay toog sénégalais bëgg nañu leeral euh, beneen euh, ponk bi mooy déclaration de patrimoine ñu ngi koy xaar boobu itam ñi ngi naan kañale ko conseil constitutionnel di fësal sa bos en tout cas ndax moo yitteel ñu bëri ñu xool tolluwaay bi Euh, ci mujj bi dinaa ko ci euh, ñambaas rek muy wàllu foncier ndax euh, mënoo fi toog te la ko laaj gis nañ ni suuf nekk na loo xamante ne jafe-jafe la ba premier ministre ba mu demee fu mel ni mbuurkat wax na ñi récupérer nañ lu toll ci mille parcelle parcelles mille parcelle yooyu état daf ko récupérer dédommagé ña ko moomoon wala ñu xam beneen bi mooy littoral bi commission ad hoc bi nga xam ni teg nañ ko bu ñu noppee ci liggéey bi dañuy xalaat ñu raser yenn ci construction yi wala yi fa dess ci ruqi dal daal lañu wara jaar ngir mëna bénéficier ci geej d'abord pour conseil supérieur de la magistrature dama gëm ne justice bi elle est rendue au nom du peuple motax bu ñuy def assise ñepp lañu wo y compris les détenus ñepp lañu wo y compris ñi nga xamantene ne tamuñu di leen wo ci buñu doon wax lo xamantene ne dafa dafa dafa soxal réew mi cette gouvernance constructive inclusive participative moo ñuy may ñu retenir les meilleures solutions parce que suma sañon problème bu ñu identifier ba tok ci ba waxtaan mu nek bu fété bor ñu dem songi benen conseil supérieur de la magistrature sama entourage la ci ñëk a ci bi débat yi commencé parce que chaque jour dañ ma doon défal le rapport journalier mané ci kenn yow xam nga lan mo sama sama position ci conseil supérieur de la magistrature ndax ñëw nga fekk ma kasso bu ngeen demee ngeen laaj ko Alioune dafa ñëw ma ne ko seede ngay doon ci man lii laa xalaat ci conseil supérieur la magistrature ma ne ko dund naa ma ne leen dund naa 44 ans siège ma conseil supérieur de la magistrature donc mën naa dundaat 44 ans du ma fa siège du obsession personnelle ci man ma siège conseil supérieur de la magistrature parce que gëm naa ne conseil des ministres moo gën a kafe kawe conseil supérieur la magistrature mais lu ñu ne président de war le conseil supérieur de la magistrature quel était l'objectif pour garantir l'indépendance des magistrats oui ou non oui ces mêmes magistrats là ne présents président bul dem te indépendants. indépendant je dis que nous xel li tax présents ñu ce que je suis en train de dire mais personnellement le conseil supérieur de la magistrature ak mais les un mois que j'ai pris mobiliser seulement tous les services de l'État tous mes collaborateurs pour enquêter sur sur beaucoup de postes sur quel est le profil de magistrat qu'il faut y mettre ba démb ma premier ministre l'a nañ jusqu'à minuit mu suis conseil supérieur de la magistrature il faut bien que quelqu'un fasse ça kan lay nekk ak yan garanti lay lay lay am ne dina ko dina ko def ni ma koy defee xaw ma mais cela ne veut pas dire que sans moi c'est le délugeant, parce que d'autres pays ont fait cette option une autre option mais je dis que puisque indépendance magistrat la ñuy bëgg te magistrat yi bëgg nañoo indépendant bu magistrat yi ne na président des na leen président déglu parce que su ma génnee c'est pas Pierre Edouard qui va être indépendant c'est juste ce que je dis Maintenant, au moment où on me remettait le rapport, je n'ai pas encore lu les arguments des tenants de NATOG et les arguments des tenants de NADEM. Toujours est-il que les assisards ont convenu d'une chose. Mon Conseil supérieur de la magistrature, même pour le président de ces waratul nek rek question de président ak magistrat que que amna yenen sénégalais yo xamantene war nañu ci bir Conseil supérieur de la magistrature. Et sous ce registre là, a problème parce que avec le cos j'ai signé un décret la semaine dernière pour davantage ouvrir le le j'ai mis aujourd'hui des représentants de la communauté universitaire j'ai mis des représentants des syndicats des organisations syndicales j'ai mis des organisations un représentant de l'ordre national des experts du Sénégal et j'ai dit parce que nous avons un représentant de l'opposition nous xam j'ai dit le candidat arrivé à la dernière élection deuxième voilà à la désigné ak le parti ou la coalition de partis politiques qui est la mieux représentée à l'Assemblée nationale plus le représentant de l'Assemblée nationale en tant que euh, institution. Quand que le Conseil supérieur soit ouvert il le sera avec ou sans moi il le sera maintenant décider de rester ou pas j'attendrai de lire les arguments parce que je venais de recevoir le, rapport. Je ne l'ai pas encore lu, je n'ai pas encore vu les arguments de Nadem et les arguments de Tog. Mais ceux qui sont sens, dont mon départ est censé garantir leur indépendance, quand ils disent le président Tog, en toute froideur, en toute lucidité, avec le recul qu'il faut, je veux entendre ces arguments-là et voir le poids qu'ils donnent. Si c'est des arguments qui me convainquent, je resterai si c'est des arguments qui ne me convainquent pas, j'en partirai. C'est aussi simple que ça pour moi. beaucoup d'observateurs nee magistrats bëgg yow euh, conseil supérieur de la magistrature c'est pour mieux faire passer des doléances euh, corporatistes et, et si c'est le cas lan moo sa position d'abord je je crois pas au corporatisme Je n'ai corps j'ai jamais défendu le corporatisme je ne crois pas au corporatisme ensuite pourquoi mais la démarche des assises est-ce que le magistrat Eric réclame non pourtant les magistrats avaient écrit sur ce que devait être la justice mais ñan sommes j'ai appelé les journalistes la convention des jeunes reporters a été invitée les détenus les les les ordres professionnels Nous lañ les les membres des assises donc je crois foncièrement que la justice étant rendue au nom du peuple est une affaire du peuple ce n'est pas une affaire du président de la République et des magistrats. Mais les magistrats étant des fonctionnaires doivent être affectés. Moi, je suis fonctionnaire, hein, Si je n'étais pas passé président de la République, demain de loi à la direction générale des emplois et domaines. Et de 2014 où je suis, non, même pas 2014, 2007, 2023, le 14, le 14 avril à, 22h, quel nom m'a donné de cette affectation, hein. c'était le ministre des Finances mais est-ce que terrain na est man li de tirer ci réew ma wax que non je pense qu'il faut aller au-delà de ça parce que l'indépendance c'est pas par rapport au à l'exécutif que c'est aussi à certains lobbies à certains certaines forces organisées au capital à certains groupes de pression donc ne prenons pas l'ombre pour la proie quand il faut adresser cette question-là nous devons le faire sans passion parce que cette réforme-là elle doit viser la pérennité et se détacher des des des personnes qui ont été ñoo nekk Ce pas une réforme qu'on fait pour man même quand on dit le président de la république de Fawarades ou pas si on gis Djomay, le président qui qu'il soit dans le futur qui viendra voilà ce mu fay faire pour qu'on ait la meilleure organisation déclaration de patrimoine man loi que la ma wax je naa déclarer te ce délai le président de la république article 37 fait sa déclaration de patrimoine le conseil constitutionnel la rend publique dara pour dans trois mois dans mais demain puisque les autres membres du gouvernement ont trois mois c'est un délai raisonnable pour man tamit ma déclaration de patrimoine je ne suis pas le conseil constitutionnel qui fait partie de l'ordre judiciaire ils ont la latitude de, le, de la publier quand ils veulent. Pas conseil vous leen neexee ñu def ko léegi nii wala suba wala gannaaw suba man li ma war déposer j'avais pas de contrainte de délai j'ai déposé au même moment que tout le monde conseil nag mooy xool ci afiyam kañ lay kañ lay kañ lay lay publier ou kañ lay bañ publier mais comme je l'avais dit de évoluer, c'est les mêmes biens j'ai tenu. Je poser la question, est-ce que même, euh, même, patrimoine bien déclaré avant et après Vous verrez entre-temps, peut-être que le président de la République, comme nous avons dit, de la mine dañ ko dañ ko ci yenn yi acheter, je ne vais pas acheter un billet nous <laughs> station nan nous essence nous pourtant ñu nous fay lu ñu fay mu ngi nous sama compte sama bien terrain ma nous dama waxone moy dinañ évaluer les les les biens yobuna fa expert ils ont évalué le terrain dubima bi dañ mako joxone joxoon lu muy jaar sur le marché j'en suis pas responsable ça c'est la bulle immobilière lima ci duggal ci sama xaliss pour tabax lol man mako def vous verrez bu génnee vous verrez man je suis nickel. c'est le président de la république ku wax foncier di nga wax ne waxu euh, urbanisme et ñi ngi ci nawet. Et gis nañ né bu nawet souvent dëkk bi day am ay ay yenn pàcc ci dëkk yo xamné dañuy am problème inondation ci communiqué conseil des ministres bi passé gis nañ né jox nga ndogal jox nga pour ce ce gouvernement pour ñu teg un programme intégré de développement de de mais le fait né ñi ñi ngeen fi wuutu ñom tégon nañ fi plan décennal de lutte contre les inondations mo am ay réussites nous am ay échecs léegi PIDA bi nga xamné mom ngeen fas yéene en place manam ci durée ci copar ci stratégie ak ci objectif lan mo est nan la mëna def ba wouté ak plan décennal bi fi nekkoon. bon pour gatal fu muy wuute mooy le plan décennal euh amna patch bo xamante ça devait mobiliser ci biir plan bi 416 milliards environ si mes souvenirs sont bons. Ça, a été engagé à hauteur de 98% qui font. Pourtant, on est à un niveau de réalisation de 12%. Quand on bi ñu pour le plan décennal demul ci plan décennal quand on a un autre plan li am solo mooy na bi dem prévoir parce que si on avait 750 750 milliards ko ci fuñ ko on aurait eu moins de difficultés au moins la gestion orthodoxe des ressources côté boobu dina changer pour bañ a nekk gën a développé mu gën a parce que dafa am li ma fàtte ci bi may bi may répondre euh, soxna Aram Sang dafa wax ci mbuurkat te ñëwaguma ci woon ak ci ci littoral bi j'ai reçu le rapport de mbuurkat tey le rapport du littoral aussi semaine prochaine dinaa ko jot le rapport de mbuurkat am na ay recommandation mais ci constat yi kese bu la waxee ne que mille 9 euh, personnes qui ont Il 1104 parcelles. Ça ne vous choque pas? Si vous avez une nouvelle ville de Thiès, 34 personnes, il y 16 186 parcelles. Ça ne vous choque pas? Mais, man, Kasso, là, là, là, là tu vois, parce que je savais. Je savais mais évidemment nous avons 9 personnes nous avons 1000 parcelles quand la convention des jeunes reporters qui bu mu jaaree seet si habitants, wax waxu habitat nous avons ni dinañ donc nous avons jël ni pour suñu patrimoine ah. quand 5 ans bu jotee ma publier sama déclaration de patrimoine vous verrez vous verrez je ne suis pas dans l'accumulation, je ne suis pas ci parce que à titre d'exemple, exemple bi may fàllu vous ngeen sama compte pourtant non la toll j'étais diablement heureux et je veux rester diablement heureux même sans argent parce que je suis beaucoup de Mais mais justice sociale c'est dafa waroo un groupe de neuf personnes am téeméer junni parcelle ak téeméer ak ñeent wala fanweer ak ñent nit am fukki junni parcelle ak juróom un ak téeméer ak juróom ñet ñet fukk ak juróom ben qu'est-ce qu'on va faire de ça on va refaire le plan et on va aller vers une distribution plus équitable. Parce que le problème au ressources Sénégal, d'abord, c'est un problème de, de, de, de, de, de, de, de, de, de répartition juste. Nous sommes tous les gens qui opposition, mais nous sommes tous Man, je sais ce que je veux dire. Je veux dire, est-ce que nous sommes tous les gens Parce que nous sommes tous les gens qui 13 hectares, 50 hectares, 200 hectares, 1 hectare. 1 hectare, c'est 43 parcelles. Pourquoi parce que jege na nguur war am un hectare 43 parcelles yoo xamante ne day dem jaay ji ko yeneen sénégalais te li ko ko kese mooy jege nga nguur mu ne la andil sa carte d'identité booy baal ñu jox la un hectare. c'est ce qu'on cherche à réparer à Mbour 4 et dans la nouvelle ville de Thiès injustice la littoral bi aussi kazalika nit ñi egg nañu fi ba bâtiment état am nga xam ne pour nga jox ko nit le patrimoine bâti da nga war dem assemblée nationale ñu voté loi nga doog am autorisation pour dindi ko nit ñi dañuy dem fekk batiment bu màgget mais c'est bati defal li loo dañuy bàyyi bu guddi ñu ruuj batiment bi mu nekk un terrain nu ñu ne c'est un terrain kenn occupé ko ça appartient à l'État ñu defal ci ay nit bàyyi déjà ah, bu ñu xamee ne daanu nañu ci la ñu def annulation ay yu dans le patrimoine de la SOGEPA et y a encore énormément de choses à récupérer c'est pas pour les que distribuer mais ça doit aller au Sénégalais parce que si c'est une sécurité dañ ko war a yombalal sénégalais yi ba pare yéwén ci nuñ koy joxee mu ànd ak maanaam que les gens aient la même chance d'y accéder parce qu'on sait à quel point c'est difficile d'accéder à la propriété loolu moo tax def on a réduit le ciment te dinañ ci defaat ay jéego yu bëri gën a nit ñi à l'accès ci accès à logement parce qu'ils méritent ça les sénégalais c'est juste le but de l'exercice sur le littoral c'est la même démarche c'est la même démarche keroog premier ministre mu ngi ñëw fi Anse Bernard di ko wax ñaata nit ñooy dem Anse Bernard li ñuy wax duñ ko weddi ils ont découpé et ça a été des histoires de quatre mille cinq mille mais bon du ñi ko def sax ñooñu gën a intéressé de base on se dit alhamdulilah ci bu ñu egsee ba mën a defar yenn yi parce que am na yoo xamante ne malheureusement boo ko bëggee dabuwaat day day day day metti mais lu ñu mën a dabu te di ko def ngir askan wi te askan wi rek tax ñu jog lool mom wax di yalla dañ ci taxaw taxawaay ak ak fayda gu mat sëkk. foncier di question bu am am importance soxal askan wi yëpp euh, xuusuñu lool ci ndox mi ak inondation bi Abdou poser sank euh aussi ñu waroon dem ci wàllu agriculture ak pêche ak euh, Souleymane nya aussi walu santé soxal lool Pierre edouard ak euh, ndey Mariem xawma ndax monsieur le président di ñu ko may ndax temps bi mom mi ñuy xoj. te dañoo bëggoon jàll si wàllu diplomatie Ndeye Marème santé liñ ciy laajte du bëri ndaxte nekk na secteur bu am solo secteur boo xam ne tamit euh, mën nañu wax ne nguur gi lu mu ciy dugal ci koppar bëri na ndaxte dégg nañu ne yaa ngeen di fay bor bi nga xam ne moom lañ amaloon hôpitaux yi ñu ngi koy fay ndànk-ndànk wante taxul ba léegi euh, structure hospitalière yi ñu ngi ci ay jafe-jafe tey jii ci ay réforme ay coppite yi ñu ci war a mën a indi lan la war a mën a nekk ba tey jii ñu war a mën a am ay euh, soins de qualité te ci infrastructure yi la ak ci formation je pense que de plus en plus am na euh, yàgg na ñoo noté que dañu am déficit ci ay spécialités yu bari yoo xamante ne même hôpitaux yi ñu tabax dangay ñëw fekk service yoo xamante ne amul parce que spécialité amuñ ci bëri na tamit médecin yoo xam ne bëgguñu génn Dakar parce que xëy na bu nekkee sax dañuy établir dans le privé fii moo leen di gën a bu nekkee tamit dañu leen di affecté peu de médecins acceptent d'aller euh, surtout avec une certaine spécialité ci fi gën a sori ils ont fait l'option d'aller dans les dans les endroits les plus reculés pour exercer là-bas Et ils ont ce mérite là donc côté le gouvernement bi dina mu ngi taxaw d'abord sur le plan de la formation gëna permettre plus de spécialités, gën leen gunge ci def spécialisation ensuite faire tamit que infrastructure euh, hospitalière bi me présente partout avec le niveau de prestation bon xamante ne day tax nit du soxla une prestation qui doit être ordinaire daw ay kilomètres kilomètres kilomètres pour ñëw Dakar pour mën ko am loolu moo taxoon bi ma ma fekk ay contrat yu dans le domaine de la santé j'avais dit nañu taxaw nañu taxaw parce que ressources yi ñu bëgg a engagé mën am mën nañ ci am ñaar ñaari hôpitaux wala hôpitaux yi nga xamante am amuñu yenn service yi ñu tabax ko fa donc rationalisation bob, ak carte sanitaire bi gouvernement par rapport à l'implantation yenn hôpitaux pour que ñi polarités ci polarité boobu ñu toutes les spécialités qu'il faut et le plateau technique qu'il faut sur le plateau technique aussi les hôpitaux les offres yu ñuy le plateau technique mais nous veillons juste à ce que les facturations correspondent que ça corresponde au prix du marché parce que comme je l'ai dit sur bi yenn saa nga gis ci mën na génne hôpitalu lëm ci lu ñuy surfacturé donc il faut rationaliser l'utilisation des ressources diversifier euh, le maillage pour fi nga xamante ne amul ñu ana am des des yenn centres yi ay hôpitaux de référence ensuite former le personnel avec les spécialités pour que foofu noonu matériel boobu ñu installé euh, mu am des spécialités spécialistes yoo xamante ne mën nañu ko mën nañu def les les prestations prestations qu'il faut

nan lañ koy sécuriser pour que ni ci wara jot jot ci euh bokk na ci tamit ñi nga xam dañoo soxla ay grande surface pour def agro business mais lima gëna soxal mom moy euh nap bi pêche bi bo xolé euh, résultat euh, ANSD yi ci euh, recensement bi bo xolé population bi nga xam ñoy dund ci pêche bi dafa wàññeeku lool parce que si mes mes mes mes notes sont sont sont fidèles 82000 personnes ñoo nekk ci pêche bi légui plus 2500 personnes qui aquaculture il y a quelques décennies nous avons ni des centaines de milliers voire des millions de personnes vivaient directement ou indirectement dans le bi ak lépp clandestine euh, les contrats euh, les accords de pêche avec l'Union européenne euh, pavillon sénégalais bi les navires qui viennent pêcher Il y la une vision avec yann Diego jéego ngeen ci pour napp deluat fumu nekon ci euh, nutrition ci création d'emploi ci euh, devise ak ci économie <laughs> monsieur le président xamna naa dina ko tënk bu baax ndax problématique yep c'est sûr que mom euh, amna ci ay vision ak yo xamante bi jéego yuñ ci wara tek euh, monsieur le président d'abord sur sur le foncier surtout rural il est important que ñu dem vers une réforme buy sécuriser les droits de ceux qui détiennent la terre parce que lu ci bëri tamit dañ koy def mais tegul ci yoon mënuñu bàyyi ñoo xam te ne fekk nañ ñoo tey suuf si depuis ay cent ans cent cinquante ans bu ñu laajee papier ñu ne leen mënoo am parce que c'est le domaine national mais bu ñu ko bëggee jox nit dinañ ko ko immatriculer defal ko ci bail defal ko ci même titre foncier souvent même fekk na la mise en valeur n'est pas encore faite loolu bu ñu ko mënee defal nit war nañ ko mën a defal ku yore suuf soosu pendant des des décennies te bu ñu ko defoon rek suuf si commencé nekk xaalis bu ñu dem garantir en banque mais surtout ñu bëgg def agrobusiness bëgg de grande surface comme vous dites il faut que ñu am générosité wu xam ne mënuñoo béy ci ndox mënuñoo béy ci ngelaw kon la ressource première pour béy suuf la léegi boo ñëwee foo xamante ne amoo suuf mais au lieu que ngay foqati suuf si mais bokkal ak ñi fa nekk ñu apporter suuf si nga apporter le capital ngeen installé ñoom ñu fay liggéey nga di leen fay parce que ñu ngi liggéey mais ñu am dara tamit parce que ñoom ñoo apporté woon suuf si bu ñu defoon lii rek coow lu bari li ngay gis nii wàññeeku mais da ngay fekk ay nit ñuy béy yaakaar loolu kese yow nga yaakaar leneen ba mu génnee leneen ci xaalis nga ñëw na non damaa soxla si parce que suuf si suuf si defuñu ci dara fekk da nga fa jaar noor mais boo fa jaaroon nawet fekk fa dara dara ne ko fa ci noor gi parce que les les les les ndox amu fa woon. le ministre de l'Agriculture a bu dee a di def ay euh, coopérative mais en fait parce que nous gëm que les petites exploitations familiales agricoles sont la solution à l'autosuffisance alimentaire et à la modernisation de l'agriculture. mais day a un accompagnement ci exploitation yooyu pour que sauf si ñu mën ko valoriser ba pare mën ko garantie mu mën pour génnee xaalis ñooñu installation pour eux, parce que nous savons bëgg nañu ko te moom lañu ñu yaakaar il leur manque juste de la région. donc des fois ñuy def loolu il faut que ñu nangoo di collaborer ak ñu moom suuf si te am ñu am ñu yéene leen tamit que suuf si bañ a génn seen loxo définitivement rek ñu nekk ay ay ouvriers agricoles mais qu'ils soient des agripreneurs qui vont aller en en en en joint venture avec les détenteurs du capital loolu mooy côté côté côté côté foncier bi bi ci des napp bi. napp bi je crois que suñu gouvernement bi tamit def na jéego ci transparence déjà publier tout les navires yoo xamante ne ñu ngi au large de nos côtes di beneen jéego bu ñu def mooy peut-être du ci loo xamante ne gouvernement bi communiqué na ci mais arraisonné nañu ay bateau yu bari lan moo ko waraloon parce que dañu leen wax ne yéen ci lu ñu signé ak yéen fii ba tant de kilomètres waru leen fa napp parce que dañ ko bëgg a suñu nappkat yi ñoom yenn saa yi ñu bàyyi foofu ñëw ba ci foofu li nappkat yi war a napp ñu raas raasaatu ko ba pare dem ci foo xamante ne nappkat yi mën ñu faa egg ñu arrêté ñëpp ñoo xamante ne traversé nañ périmètre boo xamante ne ñu foon egg teg a ay amaan yu diis tamit fi ñu doon jaar yenn saa yi nag pour lijjante ko ñu jaar fa bi yoon lijjantikuwul ñu dem fay ji ba pare dinañ ko bàyyi parce que tant que bàyyiwuñu ko duñu bàyyi di leen arraisonné du ñu bàyyi tamit di leen di leen euh, di leen di leen def ay amende te bu yàggee ci récidive dañuy téye sax seen batu benn seen batu yi benn yoon mais évidemment bu demee ba nit ñi bu ñu jëlee seen essence jël seen doole ak seen temps dem géej def ay fan ñibbi si perte mais bu yàggee dootuñ mën a réfinancer li tax ñuy dem ci campagne mais buy géej gi di amaat jën léegi ñi ñi ñi ñi ñi ñiy dundee napp te bëri nañ delluwaat ci napp gi c'est juste ce travail là qu'il faut faire et je sais que suñu partenaires yi y compris l'Union européenne mais pas que nous savons que signé ci accord de paix, nous avons wax un signature dootul paix, mais un dina changer, deux ku signé dara tamit dañu la forcé nga nous li nga signé. merci monsieur le président j'espère que les questions ont été claires bon il y en a certaines peut-être qu'on a dû sauter parce que les thématiques ont été dépassées juste une ou deux. Euh, mais si vous permettez, nous allons passer aux questions diplomatiques et aux relations africaines. Et on va commencer peut-être par Edouard, euh, qui a une question avec les institutions de Bretton Woods. Oui, oui, euh, Monsieur le Président, euh, on aimerait savoir les relations que le Sénégal entretient avec les institutions de Bretton Woods, que, que sont le FMI et la Banque mondiale. Euh, dernièrement, le chef de mission du euh, Fonds monétaire international ici au Sénégal avait dit à propos de l'eurobond euh, émis par le Sénégal, les 450 milliards, que le Sénégal n'avait pas besoin de cet argent-là. Il a même parlé de surfinancement que le Sénégal était suffisamment liquide pour pouvoir financer son économie. que, répondez-vous à cela Et globalement, quelle, est votre vision par rapport aux institutions de Bretton Woods Moi, je pense que des pays comme les nôtres n'ont jamais assez de ressources. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les urgences sont partout. Et le principal défi reste le défi de la mobilisation des ressources, qui ne peuvent se faire qu'à travers la fiscalité intérieure et à travers les droits de porte, mais aussi à travers l'endettement. Évidemment, sur le plan de l'endettement, on n'a plus trop de marge, on est obligé encore d'y recourir, l'essentiel étant que nous travaillons à garder la signature du Sénégal crédible pour qu'à chaque fois que le recours au marché international ou sous-régional s'impose, qu'on puisse obtenir ce que nous voulons parce que nous le pouvons. Ces institutions-là restent des partenaires avec lesquels nous sommes en, euh, train de travailler, avec lesquels le Sénégal a travaillé pendant des décennies et des décennies. Euh, les rapports que nous voulons avoir avec eux, c'est des rapports sincères. Et nous travaillons à ce que ce que nous présentons soit quelque chose qui reflète véritablement la situation financière. Maintenant, je ne les considère pas comme les, des boucs émissaires, encore moins euh, pour les autres partenaires avec lesquels nous sommes en relation. Il y a ce qui ressort de notre responsabilité. La gouvernance, la transparence, la reddition de compte, on ne peut pas imputer ça au FMI. Je prends un exemple simple. En 2023, on a réformé l'OFNAC. Pourquoi Parce que les partenaires avaient dit que si vous réformez, on va décaisser. Pourtant, la réforme allait dans le sens du renforcement des pouvoirs de l'OFNAC pour qu'elle s'acquitte, pour qu'elle s'acquitte davantage et mieux de ses missions. Je considère que pour notre respectabilité, on n'a pas besoin de partenaires extérieurs qui nous fassent la pression pour que nous nous fassions des progrès sur le plan de la transparence et de la gouvernance, de la bonne gouvernance. Ça, c'est une question qui nous, qui nous regarde d'abord, avant que des partenaires n'aient à nous dire il faut réformer pour, qu'on puisse décaisser. Certaines conditionnalités heurtent notre conscience parce qu'on ne doit pas attendre qu'on nous les impose dans, dans ce cadre-là. On doit les faire par nous-mêmes quand on considérera que c'est utile. Quand on considérera que ce que le FMI ou la Banque mondiale nous impose de faire ne va pas du tout dans le sens des intérêts du Sénégal ou du peuple sénégalais, en ce moment, on leur fera clairement savoir, par des arguments objectifs sur la table, que cette, cette option-là n'est pas la meilleure option pour nous et que voilà l'option alternative que nous proposons. Et comme on l'a tout le temps fait en bonne intelligence avec eux, j'estime que ils comprendront et nous soutiendront dans cette démarche-là. Et quand le FMI dit que, vous avez, que le Sénégal est suffisamment liquide pour financer son économie, est-ce que cela signifie aussi que vous, vous avez hérité d'un pays où les finances publiques sont assainies Non, pas du tout. Actuellement, on est en train de faire, comme nous impose la loi portant transparence dans la gestion des finances publiques au Sénégal, à l'article 7, il nous impose, le nouveau gouvernement qui arrive doit faire l'audit euh, des, des, finances publiques. Et cet audit est soumis à la Cour des comptes qui valide les résultats ou fait les observations dont il faudra tenir compte. Tant que ce travail-là n'est pas encore fait, on ne peut pas, euh, sur la base de, préjugés ou de, ou de, présomptions, euh, être dans, dans l'échange indirect, surtout pas par voie de presse interposée avec les partenaires. On attendra cet audit-là et la revue que la FMI est en train de faire, elle est en train de le faire en avançant, mais à un moment donné aussi, on continuera à, on, viendra leur dire voilà ce que l'audit a montré. Monsieur le Président, il y a quelques jours, vos pairs de la CEDAO vous ont désigné comme facilitateur dans les discussions entre euh, l'Alliance des États du Sahel et la CEDAO, dans un contexte euh, très difficile. Euh, est-ce que vous avez évalué vos chances de réussite dans, cette médiation-là et comment vous allez travailler avec le président euh, du, Togo, euh, avec qui vous allez travailler sur ce dossier-là, et éventuellement avec le président de la Guinée-Bissau, qui a offert euh, également ses services dans, ce cadre-là. moi, j'estime que la situation de la CDAO est sous nos yeux. On ne peut pas la nier. Aujourd'hui, la CDAO est en difficulté le reconnaître, parce que quand une organisation qui est bâtie avec des objectifs d'intégration économique et commerciale, toujours en tout cas plus poussés, quand on voit qu'il y a des pays qui cherchent à sortir de cette organisation, on ne peut pas dire que l'organisation se renforce. Et quand l'organisation ne renforce pas, elle faiblit forcément. Je suis arrivé dans un contexte où ces trois pays-là annoncé leur départ. La période de préavis est en train de courir jusqu'en janvier. Notre responsabilité en tant que contemporains qui devons administrer cette situation malheureuse, c'est de parler aux uns et aux autres. J'ai la chance ou la malchance de ne pas avoir été là quand ces sanctions-là étaient en train d'être prises et qui ont envenimé les rapports entre la CDAO et les États de l'Alliance du Sahel. Quand je suis arrivé, on me pointe de ces États-là, ne me regarde pas comme quelqu'un qui a été parmi ceux qui les ont sanctionnés. Donc ils ont une facilité à me parler plus qu'ils ne peuvent en avoir pour les autres. C'est un atout qu'il faut mettre au service de la communauté. Quand je dis communauté, je parle de tous les pays et de travailler à ce que la réconciliation renforce l'objectif d'intégration. Je n'ai pas attendu d'aller à la CDAO. Dans le cadre des visites que j'ai entreprises pour raffermir les relations du Sénégal avec ses voisins. D'abord, avec qui nous partageons la même frontière, avec qui nous adressons des défis communs qui sont très prégnants, notamment le Mali. Mais je suis allé dans ce sens-là pour le renforcement de la coopération bilatérale, mais j'en ai profité pour leur dire ce que je pense de leur, de leur projet de mise en place d'une confédération. D'abord, je respecte leur souveraineté et leur choix, mais j'ai essayé d'attirer l'attention de mes homologues de ces pays-là qui traversent une situation que l'on connaît et à laquelle nous sommes très solidaires, ainsi qu'avec leur peuple, pour essayer d'attirer, d'essayer de, les faire revenir sur la, autour de la table des négociations. Parce que ce qui n'est pas bien quand il y a conflit, c'est qu'il n'y ait pas de plage pour se parler. À ce que je sache, aucun pays n'est allé bombarder aucun autre pays. Les États-Unis, en 1945, ont fait ce qu'ils ont fait à, Nagasaki et à Hiroshima. Est-ce que pour autant ils ne se sont pas parlé Si. Donc il ne peut pas, on ne peut pas accepter une situation de fait où il est impossible qu'un dialogue puisse avoir entre les États de l'Alliance du Sahel et la CDAO. Cela n'a rien à voir avec la mise en place de leur confédération. Mais même s'ils décident de sortir de la CDAO, comme l'Angleterre a eu à le faire dans le cadre du Brexit, il faut bien que cette situation-là soit administrée. Même s'ils décident qu'ils ne reviendront plus jamais dans la CDAO, il faut bien qu'on discute de comment ils vont partir, qu'est-ce qu'ils avaient dans la CDAO qu'ils ne pourront plus avoir et qu'est-ce qu'ils vont avoir dans le cadre de la coopération bilatérale. Est-ce que, est-ce que, est-ce que. Donc il y a énormément de questions à faire, à discuter. L'autre chose, c'est que même s'ils ne sont plus dans la CDAO, cela n'empêche que nous adressons aujourd'hui des défis communs, notamment le terrorisme, le les trafics illicites, qu'il s'agisse de substances illicites ou d'êtres humains, ou d'autres euh, défis que nous, avons en commun. Mais ces défis-là doivent être pris en charge au sein de la CDAO, et dans toute la mesure, on pourra leur en faire bénéficier, même s'ils ne sont pas dans la CDAO on trouve les plages de discussion et de convergence. Je ne me fais pas d'illusions, j'y vais avec beaucoup d'humilité. Je vais faire en compagnie de mes pères et sous la supervision de la CDAO ce que je crois devoir faire, à savoir dialoguer, discuter, travailler à réconcilier les positions. La décision qui sera prise par les États de l'Alliance du Sahel est une décision que l'on respectera parce que c'est des États qui sont souverains. Mais j'estime que quelle que soit la décision, les États du Sahel ainsi que l'Alliance des États du Sahel ainsi que la CDAO doivent discuter parce qu'il y a beaucoup de défis qui intéressent à la fois les États membres de l'Alliance du Sahel que les, États de la CDAO. Maintenant, dans le cadre de la démarche, évidemment, j'ai été mandaté au même titre que le président Four. J'ai prévu de lui rendre visite dans le cadre de mes tournées. Je n'avais pas encore pu, mais je lui avais parlé au téléphone, comme les autres présidents à qui je n'ai pas encore rendu visite. Et sur place, on définira euh, les voies et moyens pour, euh, pour, euh, pour, adresser la question au moins et trouver au moins une plage de discussion. Entre-temps, j'ai pu convaincre le professeur Abdoulaye Bachili d'en faire un envoyé spécial, pas que pour moi-même, pour, je veux dire pas que pour cette, cette mission de médiation dans laquelle la CDAO m'a impliqué, mais dans d'autres missions pour lesquelles je peux avoir besoin de son expérience, de son vécu, de sa respectabilité, de, sa stature internationale. Et je sais que c'est quelqu'un qui, avant même d'en faire un envoyé spécial, j'ai dû d'ailleurs lui tordre la main pour qu'il accepte d'en être un, m'a régulièrement conseillé par rapport aux prises de position. Vous savez, le Sénégal a quand même de grands hommes qui aiment fondamentalement ce pays qui se sont beaucoup sacrifiés, à qui je rends hommage d'ailleurs, les connus comme les moins connus, et qui sont encore là ou d'autres qui sont disparus. Et je pense qu'en reposant sur, sur eux, on peut véritablement bâtir des consensus forts au niveau national, dans la sous-région, mais aussi au niveau international. Monsieur le Président, le Premier ministre Ousmane Sonko, en recevant euh, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, avait euh, dit que le Sénégal, pour disposer euh, de lui-même, est incompatible avec la présence durable des forces étrangères, en tout cas au Sénégal. Est-ce que cela veut dire que vous allez ordonner le retrait des troupes françaises du Sénégal Si oui, quand est-ce que cela va se faire Sinon, quelle forme de collaboration va-t-on avoir avec euh, les militaires français Non, pas, je ne peux pas dire quand ça va se faire à telle date, parce que même les, les modifications qui interviennent dans les relations entre pays doivent être, de mon point de vue, discutées en toute sérénité, en toute amicalité, en toute amitié. Je ne pense pas qu'on ait besoin aujourd'hui, quel que soit le partenaire, d'avoir des ruptures brutales parce que les relations entre les États sont faites de rupture, de réconciliation, de rappel d'ambassadeurs, de retour d'ambassadeurs, etc., etc. Je ne veux pas d'ailleurs qu'on fasse juste le focus sur le, la France, la Russie, la Chine ou quelques autres pays. Ce à quoi nous travaillons aujourd'hui avec euh, euh, les, les, les hauts officiers militaires ainsi que les, certains membres du gouvernement, c'est d'avoir deux choses. Une loi sur la défense et la sécurité nationale. Le contexte a beaucoup évolué. Nous avons des défis à adresser sur le plan international et une doctrine à définir par rapport à la coopération militaire de façon générale. Mais tout le monde sait que nous sommes des souverainistes et dans la conquête de ces souverainetés, je ne dirais pas de la souveraineté, parce que c'est une souveraineté économique, alimentaire, pharmaceutique, numérique, militaire et tout ce qu'on veut, dans la conquête de cette souveraineté-là, il n'y a, rien qu'on ménagera comme effort pour atteindre cette souveraineté-là. Lors de mon séjour à, à Paris, j'ai pu aborder certaines questions avec le président français. Évidemment, cette question-là était à l'ordre du jour. Mais il se trouve que depuis quelques années, on a institué un séminaire intergouvernemental entre la France et le Sénégal, les deux parties sont en train de travailler sur tous les accords qui nous lient, qu'il s'agisse des accords militaires, des conventions fiscales ou d'autres accords ou projets sur lesquels nous, sommes, nous, nous, nous, euh, nous coopérons. Et quand cette commission-là viendra, nous travaillerons à identifier ce qui doit évoluer, ce qui doit être renforcé, ce qui doit être délaissé. Et cette doctrine-là sur la coopération militaire, elle est définie pour nous, par nous, et elle sera présentée à tous les autres partenaires qui ont des, des, des, des velléités, en tout cas de présence ou de collaboration avec nous. Et on travaillera dans chaque schéma à identifier là où se trouve l'intérêt du Sénégal. on le préservera de toutes nos forces. Monsieur le Président, Aram a parlé de la France, mais le constat est unanime. C'est le monde entier qui a les yeux rivés sur le Sénégal, disons sur l'Afrique. Et dans votre programme, vous avez beaucoup insisté sur le souverainisme. Alors, ce souverainisme, est-ce qu'il est compatible avec une dépendance vis-à-vis des puissances extérieures Autrement dit, quel type de relation le Sénégal ou bien même l'Afrique doit entretenir avec toutes les autres puissances, que ce soit la Russie, les États-Unis, les pays asiatiques, entre autres Je me suis engagé à faire de ce pays, en plus d'un pays stable, apaisé, ça c'est aussi le plan intérieur, et je me suis engagé aussi à en faire un pays, un partenaire plus sûr et plus fiable. Les, la conquête de la souveraineté, comme je l'ai dit, c'est plusieurs souverainetés. Tant qu'on sera dépendant sur, dans un domaine ou dans un autre vis-à-vis d'autres personnes, on aura du mal à dérouler ce que nous voulons faire, qui soit conforme à nos aspirations, qui soit conforme au respect de nos croyances, de notre, des justes et coutumes de notre société ou autre chose. Il faut que nous arrivions, en tout cas nous travaillons chaque jour à aller plus en avant dans ce, dans, dans ce sens-là, que nous arrivions à pouvoir faire tout pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Le partenariat que l'on propose aux autres, désormais, c'est un partenariat qui respecte notre souveraineté et qui est mutuellement bénéfique. Ce pays étant un pays ouvert, à tous les partenariats. Il n'y a pas de partenaire privilégié autre que celui qui va dans le sens d'avancer avec nous sur la voie que nous avons définie et que nous pensons être la meilleure pour le Sénégal et pour le peuple sénégalais. Ça, c'est opposable, j'allais dire, erga omnes. C'est pour ça que les questions qui transcendent les mandats et les individus qui incarnent les institutions à des moments donnés doit faire l'objet de discussions et d'un consensus national fort. Et qu'une fois que ce consensus national fort est dégagé et qu'une doctrine ou des règles sont établies, que les partenaires avec lesquels on travaille, qui ont été aux côtés de nous ou qui viennent d'arriver et qui veulent aller très loin avec nous, qu'ils comprennent que voilà le cadre dans lequel ce partenariat doit évoluer. Et je pense que les partenaires, en tout cas, à qui on les a présentés, parce que comme vous dites, les yeux ne sont, c'est pas que les yeux qui sont rivés, mais les pas sont dirigés vers le Sénégal. Je pense que vous voyez l'agenda, il y a encore beaucoup d'invitations à aller visiter, il y a beaucoup de personnes qui viennent venir. Et tous ceux qui viennent, en fait, on leur a présenté la situation, c'est que le Sénégal est un pays ouvert à tous les partenariats. Les partenariats que nous nouons aujourd'hui sont des partenariats qui sont mis au révélateur de deux choses. Il doit s'agir de partenariats mutuellement bénéfiques. Il doit s'agir de partenariats qui respectent notre souveraineté et notre culture. Et sur ce rapport-là, je pense que nous pouvons collaborer avec tous les pays. Monsieur le Président, merci beaucoup euh, de nous avoir accordé cette primeur, euh, votre premier entretien avec euh, la presse de façon générale et précisément la presse sénégalaise. Là, six organes ont été représentés. On sait que le paysage médiatique sénégalais est très, très riche. Euh, j'espère que vous allez encore accorder d'autres euh, entretiens à tour de rôle à nos autres confrères. Ah, moi, je... Il <laughs> faut que les gens comprennent que euh, j'ai une équipe qui fait un formidable travail. Je les félicite d'ailleurs pour tout ce qu'ils sont en train de faire, ce que vous voyez comme ce que vous ne voyez pas, dans le gouvernement comme dans le cabinet et même d'autres personnes qui sont, qui sont dans l'ombre et dont les conseils sont extrêmement appréciés parce qu'ils veulent du bien au Sénégal. Vous comprenez très bien que ce n'est pas moi qui ai dit que tel média vienne, que tel autre média vienne. De toute façon, quel que soit le média qui aurait été là, j'allais dire la même chose. Le directeur général de la RTS, il faut l'en féliciter, a mis le signal à la disposition de tout le monde. Soit le signal n'est pas accessible, on s'en plaint, soit c'est parce que moi-même je voulais être là-bas. Tout le monde ne pouvant pas être là, il faut bien qu'une sélection soit faite. Et sous ce rapport-là, je, fais confiance à mon équipe. Quand ils auront fini de faire leur choix et qu'ils me disent qu'on a choisi telle telle personne, je leur dis ça, c'est pas des choses que je gère. Parce que si j'ai une équipe qui peut même pas choisir de façon objective des, des journalistes qui doivent m'interviewer, autant, les, autant chercher d'autres. Mais objectivement, quand vous avez le groupe Sud, vous avez le groupe Walfadiri, vous avez le, groupe de la, de la, RTS, vous avez le groupe Futur Média, et vous avez... Euh, sans limite Sans limite. Quand j'ai des RTS, je pense à l'APS, PS, au Soleil et, à la RTS en tant que telle, et que le signal est mis à la disposition, véritablement. Je pense qu'on on a fait ce qu'on doit faire pour pour, euh, pour, euh, pour atteindre les, les, les, la cible avec laquelle on voulait entrer en relation, à savoir le Sénégal. Maintenant, cet exercice-là, comme je l'ai dit au début, ce n'est pas un exercice de, de, bilan. Franchement, 100 jours sur 1800 jours, on ne fait pas le bilan en 100 jours. Mais j'ai estimé qu'après avoir, qu'après trois mois à la tête du pays, que les Sénégalais avaient besoin de nous entendre leur dire l'état des lieux sommairement et de leur dire euh, le cap qu'on a pris dans les différents domaines, dans la mesure de ce qu'on pouvait dire avec le timing, mais avec aussi le saut du secret et, des, des, responsabilités. Cet exercice-là va se renouveler parce que la reddition de comptes, c'est aussi ça. C'est aller régulièrement vers le peuple qui nous a mandatés pour une durée et leur dire étape par étape où est-ce qu'on en est. C'est aussi en adressant certaines questions, comme on l'a fait avec les assises de la justice et comme on le fera d'autres questions cruciales, appeler toutes les composantes du peuple à donner leur avis sur la trajectoire que le pays doit prendre sur tel, dans tel domaine ou dans tel autre domaine. J'estime évidemment que les responsables de la communication, quand cet exercice-là se représentera, ne vont pas appeler les mêmes personnes. De toute façon, s'ils appellent les mêmes, les mêmes groupes, forcément, peut-être qu'un autre journaliste du groupe Al-Fajri ou de GFM viendra. Pas Pierre ou Suleiman qui viendra ou, ou c'est peut-être quelqu'un d'autre qui. Ah, Aram plutôt. Donc, mais sur un autre rapport pour finir. nous pour, pour finir ce sur... sera un exercice à tour de rôle. Non, non, je, veux juste que mon équipe sache qu'elle n'a aucune pression à recevoir par rapport à ça. Parce qu'objectivement, les gens savent que choisir, c'est éliminer. Puisque cet exercice-là est le premier après trois mois, peut-être que dans trois mois ou six mois, cet exercice sera renouvelé. Avec moi ou avec d'autres membres du gouvernement. Ce que je peux assurer déjà, c'est un exercice de transparence, de reddition de comptes, de discussion avec le peuple auquel on va sacrifier régulièrement. Et évidemment, certains sont venus aujourd'hui, je pense que d'autres viendront. Si c'est les mêmes groupes, d'autres journalistes viendront. Si c'est d'autres groupes qui ont choisi, de nouveaux journalistes viendront. Mais on ne doit pas véritablement en faire une source de frustration. Et j'ai dû entendre des, des mots, je crois, qu'il faut, qu'il faut éviter entre confrères. On ne peut pas dire que ceux qui sont là, c'est des tocards. Ce pas des tocards. C'est des gens qui représentent dignement la presse et qui font leur travail correctement, qui ont une certaine reconnaissance et je crois que nous sommes tous, après tout, des Sénégalais. On peut quand même y aller avec une certaine bienveillance. Bon, c'est des, moments qui sont des moments heureux. Vous les aurez régulièrement avec nous parce que c'est dans cette collaboration-là qu'on veut aller avec vous. Vous donnez la primeur et la priorité parce que nous vous respectons, parce que nous savons que vous êtes là pour le peuple sénégalais, parce que nous savons que vous avez mené des combats pour que la démocratie soit ce qu'elle est et nous vous rendons un vibrant hommage. Et à travers vous, tous vos collègues, quel que soit ce qu'ils ont pu dire, ce qu'ils ont pu faire, nous avons fait des choix, il le fallait. La prochaine fois, d'autres choix seront faits, mais je dis à mon équipe de ne pas subir de pression et d'y aller avec toute la sérénité qu'il faut. Monsieur le Président, Son Excellence euh, Batirou euh, Diomaye Diakhar Faye ñu lay de la Sante, ci lii nga xamante bi moom nga ñu jagleel tey euh, kon tey ñu leen di euh, euh, monsieur le président de la république mon accordé won, génnam bu ñëk doon waxtaan tay ak euh, journaliste yi réew mi am nañ yaakaar ci ne lu bëri ci li doon jiixi jaaxa wala loo doon xalaat ci li nga xamante bi la fi jot def wala moom la mbébét ci ñetti weer yi mu fi amal am ngeen si ay tontu yu leer

Voilà, je crois qu'il est temps de remercier.